asalaamaaleykum sunu mbokk auditeurs yi ñu ngi leen di nuyu ci Sud FM seen rajo 98.5 ñëw ak yéen ci rétro sport ñu war a waxtaan nag ci sport bi de manière générale sunu invité tey mooy Aziz Gueye bu président union sportive de Wakam ñu war a waxtaan ak moom ci reprise bi ndax tamit euh, ba léegi Sénégal ci wàllu football bi xamaguñu kañ la ñuy reprendre am na ay dëkk yoo xam ne yu mel ni Europe reprendre nañu ku ci mel ni Allemagne Italie ak Espagne. même Afrique am na pays boo xam ni reprendre na muy Tanzanie ñu war ci waxtaan ak moom dinañ waxtaan ak moom tamit ci play off ak play down yi nga xam ni ñu ngi ko doon wax fan yële passé mu am ci ay président de club yoo xam ni ànduñu ci buñ jógee ci loolu tamit nañu waxtaan ci wàllu Coupe d'Afrique des Nations puisque bi war a am au Cameroun éventuellement président secretaire général CAF nee na mun na am ñu jouer maanaam euh, qualification yi ci. mois d'octobre ak novembre mais loolu lu mu xalaat rek la te loo xam ne yaakaar nañ ne mun na am effectivement fii tamit am na ñoo xam ni ñi ngi naan war nañu reprendre ñi ne war nañu reprendre ndax ba tey pandémie bi mu ngi fi te jógee gu fi loolu lépp dinañ ci waxtaan ak ki nga xam ni mooy Aziz Gueye di président union sportive de Wakam dinañ waxtaan tamit ci làmb ji puisque docteur Alioune Sarr moo doon invité ANPS ci seen WhatsApp bi waxtaan ak moom samedi li jëm ci wàllu làmb ji. la nga xam ne waxoon na ko rek ne tant que autorités yi nga xam ni ñoom ñoo ko fa teg ñoo ngi ko fa teg dafay continuer di liggéey kooku tamit nañ ci waxtaan ubbi antenne bi kon président ñu ngi lay nuyu bu baax a baax a baax. mais maa leen di fay. di am mbégte tamit ci ñëw bi nga ñëw. ci encore ci période bi ñu nekk muy période de pandémie. Mm. Euh, muy moment boo xam ne c'est assez difficile mais nag comme que sport bi fa doon loo xam ni yéen ci ngeen di yëngatu à chaque fois war nañ di waxtaan ak yéen. Mm-hmm. ngeen ci toll ak li ngeen xalaat ak lan ngeen yaakaar tamit ni ci saison bi fi mu toll nii ndax. am nga yaakaar ni dinañ ko reprendre ndax wax nañ mois bi ñu koy reprendre muy septembre am na ñoo xam ne nañ dafa sori est-ce que dañ ko war arrêté donc y a trop de problème te yow dégg nañ la temps yële passé tamit nga ni d'accord ci play-off yi ak play-down yi loolu yëpp nañu si waxtaan El Hadj Malick ak président Abdou Aziz. dañ koy def rek moom mooy nuyu ko Abdou Aziz su defee mu lay nuyu. mbay maa ngi leen nuyu auditeurs yi. di leen massawu. et euh, xam nañ ni Covid bi vraiment euh, perturbé na lu bari. maa ngi nuyu ñëpp quoi. Aziz euh, ñu amaan mbégte gu am na ak yow ci rétrosport bi di fàttali sa réew ñoo nga jógee fi mu toll nii ci lig bi yéen ci ba léegi di agité par rapport ak championnat bi. Euh, doo bonte sax ne soo ñu ko mënoon wax tam moo ñu gënal tey jii ñu doon ci daje bi nga xam ne ligue bi amal na ko tey jii jëm ci wàllu reprise bi. bon ñëw ma fii pour. Euh, <laughs> pour wax affaire ligue bi parce que ligue bi ñoom ba dama leen bàyyi sa réunion. Ah, donc euh, vraiment je ne prétends pas ñëw di wax ne lii lañ fa wax ak lël lañ fa wax. Ah, ah. parce que réunion bi jeexagul donc bëgguma dugg si affaire boobu. par contre mais lan mooy bitu réunion bi. bon réunion bi c'est c'est une réunion dañ tey dañ tëg club yëpp pour ñu ñëw waxtaan si. Euh, reprise reprise bi waxtaan ku nekk joxe sa xalaat. et tout ça situation bi situation bi. xam nga a dafa am lu bees lu am. depuis mai bi ñu xëy dañuy def play off play down yi am nañu yëkkati kàddu ak évolution pandémie bi ak état d'urgence bi am nañu ne la reprise sa boo deful donc dina am un peu plus tôt maanaam bu nekkati sax novembre même plus tôt que prévu. est-ce que yow loolu yaakaar nga ne c'est faisable jouer un peu plus tôt que prévu que mois de novembre. bon ñun au niveau de l'US Ouakam euh, du loolu la ñuy la ñuy gën a soxal actuellement fédération bi ñuy wax ay play off play down. Mhm. Euh, def ko sukkandiku sur ay incertitudes. Mhm. chaque fois way bu fekkee ne Covid bi ah. na bu fekkee ne lii et ah, ah, te vraiment ñun mënuñu toog si ay incertitudes mën na def avant wala après. Mhm. te fi mu nekk nii yàlla xam na ne. chaque jour bi ñuy lire ay journaux. Mhm. affaire bi nekkoon rek moo fi nekkaat. Mhm. yenn sax day gën a garaaw. day gën a garaaw donc bu ñu toogee ba le vingt neuf juin. Mhm. ba président wax ba le deux juillet ba fédération aussi euh, réunion ba décidé waat leneen mooy si la xam ko mais fi mu nekk nii ñu ngi si couvre feu. ñu ngi si lu ne donc je pense pas que ay supposition euh, naan lii loolu moo tax union sportive doo xam ne au lieu ñu nekk di def si ay supposition nañ arrêté xoolaat bu baax nag. lan la ñu war a def parce que affaire bi du du du du du football coûte que coûte. Mhm. il faut euh, penser à la santé des des populations à la santé des joueurs à la santé des supporters. et parce que ñun on a un un boo xam ne bu ñu amee marché yi ñu ñoo koy organiser. Mhm. les responsables bu amee problème kan mooy problème c'est toujours les les dirigeants. qui répondent donc les dirigeants nag aujourd'hui mën nañu xalaat bon peut-être que man may xalaat noonu au niveau euh, euh, man moo ne man mooy US Wakam mën nañ xalaat ne ñun au niveau de de la de l' instance dirigeante de l'UES Ouakam mënuñu basé wu ci ay suppositions. Mm-hmm. fédération ñun on a attaque juste la décision. Mm-hmm. Euh, du comité d'urgence di wax ay play off play down. Mm-hmm. loolu mooy problème bi di daa veut dañu bëgg euh, rapidement euh, duggaat ci biir football bi commencé waat football te vraiment. Euh, du loolu moo le le plus urgent à l'heure actuelle c'est pas ça. Mm le plus urgent à l'heure actuelle. Mm c'est d'abord la santé des populations. Mhm. après maintenant de voir comment on fait. Mhm. waaw mais li ñu lay laaj loolu le président mooy dañu gis ay voix yoo xam ni ñu ngi wax yow bokk bokkoon nga ci waa Njàmbur bokkoon nañ ci. génération foot aussi bokkoon nañ ci. Mbour Petite Côte Mbour Petite Côte. port autonome port ak port autonome xam nga tamit lu mat six équipes. Mhm. dont cinq peut-être en Ligue 1 kenn en Ligue 2 sans compter yeneen contestation yi euh, yéen benn position ngeen jëloon par rapport à ça. ñun de toute façon d'emblée ñun play off play down ñun dañ ne d'accord ñu si. lu tax d'accord ñu si mooy li ma wax sànq rek. mooy c'est pas notre priorité de d'aller jouer tout de suite ñun di ëpp importance ak à l'heure actuelle mooy la santé des joueurs et deuxièmement ay euh, euh, euh, incertitude la. buñ ne play si la ñuy ñaan. si yaa ngi wax beneen si de. waaw <laughs> ah, ah, bien sûr. waaw moom la ñuy ñaan si tout se non si tout se passe bien vraiment. Ah. mais on va jouer. même même les treize bu fekkoon ne tey dañ ne juin bi affaire bi jeex na. Hmm. mais ñu ne il faut il faut quand même ça fait trois mois ñu arrêté. il faut ñu defaat encore des des une préparation hivernale. Hmm. et puis dem jouer ji ñun de côté boobu on n'a pas de problème. waaw mais pourquoi ngeen bañ playoff yi après daaw ni parce que c'est pas équitable yéen deuxième ngeen jël. non non non parce que c'est pas parce que deuxième lañ jël. waaw jël. parce que da leen di Abdou Aziz. non bien sûr Aziz cas de bien sûr. mais cas de force majeure moo tax ñu jël décision. ñu jël décision si tout se passe bien championnat bi dañ koy eggali. oui am na dëkk yoo xam ni en Europe en Afrique dañoo arrêté. Mhm. désigner seen champion n'est-ce pas. mais le fait que de de loolu dafa laaj ay ay ay ay mesures d'accompagnement dafa laaj dafa laaj réflexion du jékki-jékki rek benn jour ñëpp doon xalaat leneen au niveau de la ligue en tout cas ligue bi. Mhm. réunion yi ñu mësoon def yëpp kenn mësul xalaat play off play down franchement bi ñu demee ne comité d'urgence la mhm. jékki-jékki play off play down boobu génn. lu mu génn mais situation moo tax Aziz. mais mais situation moo tax d'accord mais c'est. Euh, on est mhm. euh, pas équitable. yow nee nga il faut une préparation hivernale. deux Euh, muy muy quatre mois yoo xam ne dañ koy perdre ci saison bi. mais loolu bu ñu ko naree rattraper la seule solution mooy ñu couper poire bi en deux c'est-à-dire au lieu ñuy jouer euh, ñu jouer douze ou treize le temps peut-être ne le permet pas d'après ce qu'ils ont dit. ñu jouer ko en deux parties. play down ak play off. loolu on l'a compris on l'a compris. mais mais mais pour pour, pour raccourcir le temps. waaw anduñu si. anduñu si parce que tout simplement euh, euh comme ni ma wax. Euh, ni mu waxoon ci biir communiqué bi ñun on on on propose autre chose nañu nañu jël saison bi puisque on a déjà assez dépensé et puis on n'est pas suivi. Mm-hmm. on a assez dépensé pour yëg si fi ñu yëg si nii dañu mel ni way daf leen arrangé mais parce que c'est sur le terrain ñëpp joué nañu ba pare. su fekkoon ne sax dafa am ay match yoo xam ay rencontre yoo xam ne benn équipe bi dajeegul ak bële ak yooyu. Mhm. mais fi mu nekk nii équipe yëpp daje nañ. Mhm. allé bu nekk daje waaw mais daje nga ku nekk mais kenn kenn xalaatul woon ne dañuy taxaw ale wala bañ a taxaw. Mhm. donc dañuy basé aussi loolu aussi si loolu. mais léegi bu fekkee ne dañ jékki-jékki ñu ne léegi da ngay conserver ses points da dem jouer ji saint après nga dem jouer ji Ziguinchor après nga dem jouer ji Fatick bon doo Euh, euh, déjà euh, c'est c'est euh, euh, avec le la conjoncture nii xaw ma ndax dañ bàyyi là là ça suppose que dañuy jouer en en en en huis clos. Mm-hmm. mais huis clos pays yi ko def en général. ñoom ñëpp dañu am ay droit délai. dañu am ay dañu am xaalis avant. mais huis clos ñun. am na ay xam ne ñun ñun ñun Wakam dañu am ay supporters. waaw nga dëgg de ñun suñu dañu bokk si dañu bokk si bi. dañu jékki-jékki joueurs yi ñooy dem supporters toog fële ne way fay football bi normal loolu la ñu wax waxuñu ne dañu jouer de mais dañu bëggoon jouer dans les bonnes conditions ñëw ak suñu supporters def une fête mais pas ñëw toog jékki-jékki ñu jouer coûte que coûte mel ni dañuy copier ñi nga xam ne ñoom ils ont ils ont déjà leur euh, leur budget affaire yëpp am na am nañ tuuti seen xaalis yi ba ngi taxaw. ba pare mais mais Abdou Aziz li ma li ma xaw a jaaxal tuuti yaa ngi koy wax. c'était ce n'était qu'une mesure provisoire. boo xam ne daf ko waroon entériné mooy le comité exécutif moo ko waroon entériné. Mhm. entre temps encore ba juillet. donc dafa mel ni li ñu waxoon ñoom am na tuuti loo xam ne. bàyyi nañ ko du wax sax du mais am na loo xam ne léegi. pratiquement dañ toog ay supposition parce que tout dépend de la situation de la pandémie. lépp mu ngi dépendre ci yan fan la ñu fi toll. Mhm. donc suñu ci ay spéculation lañ toll mais man li ma xaw a jaaxal moom lu ñu ci teg jouer phase retour yi mu jeex lu ñu teg bu ñu tegee sax un mois ferme on va jouer les phases retour man en ce qui me je suis contre les playoffs parce que amul benn équité sportive boo xam ne am na yow mii tey di bañ playoff yi yow pourtant Wakam elle fait partie des équipes les mieux placées et les classées deuxième derrière la Ligue de Saint-Louis. Wakam tey jii bu mun mun mun retrouver les kii kii rapidement. Mhm. donc peut-être c'est par principe moo tax nga ne amul équité sportive. man mhm. contradiction Aziz moom moom ma xaw a jaaxal. non amul équité sportive du loolu uh-huh. euh, euh, bi ngeen toll yéen war a mun ci. war a d'accord bi ndax. ngeen d'accord ci foofu moo may jaaxal. pas d'accord ñu si par du loolu. Mhm. du loolu de euh, problème bi d'accord ñu si. simplement malgré votre position confortable confortable c'est pas confortable. Ah, deuxième ngeen jël parce que deux moo yéeg. waaw mais deuxième lañ jël ñun premier lañ bëgg a jël <laughs> deuxième lañ jël c'est pas une position confortable. waaw mais mais mais place bu mënoon bien sûr waaw bu ñu joué de toute façon dañ ne. Ah, ah. d'accord ñu si. mais parce que club bu nekk am nga droit d'accord wala nga bañ d'accord. Mm-hmm. Mm-hmm. La, décision finale revient à la à la au comité mm-hmm. exécutif. léegi mais duñ nekk naan dañuy grève wala dañuy def lii non mhm. dañuy dem jouer yi mhm. y a pas de problème mhm. mais dañuy wax rek suñu xalaat par rapport à cette décision là et club bu nekk war nga xam wax sa xalaat. léegi bu ñu waxee sa xalaat ba pare loolu loolu peut-être que c'est une erreur de la fédération peut-être ah. mën nañu euh, wax avant de de prendre la décision bon ku nekk ñu laaj sa xalaat ba pare. bu ñu paree nag après ñu jël même play off play down et cetera ku nekk laa na nal sa xalaat. c'est pas parce que Wakam dafa xalaat lii. moo tax loolu lañ koy def non. moom mu nekk une décision concertée. une décision de une pas avoir l'unanimité mhm. c'est pas grave. mais kon kon nañ la votre point di nga am ay éléments. mais au moins au, au de la ligue. quand réunion woon nañ def nañ plusieurs réunions pour loolu. mais vous n'avez pas été consulté par la fédération. Euh, laaju leen seen avis. Euh, non fédé non ligue bi joxe na peut-être aviam au niveau de la fédération. Mhm. parce que ñun bokkuñu woon comité. Mhm. comité d'urgence ah. am nañ ñu fa ñu fa représenté. c'est le président de la ligue représenté ñu fa défendre na peut-être la position de la ligue mais jàllul. Mhm. mais loolu kenn mënu si dara. léegi nag ça pas dire que da croiser les bras après léegi loolu la fédération wax rek nga kii ñun mën nañ ne ba mais affaire bi du point de vue lii toog di baxaar ba novembre aussi. le problème mooy aussi président mais loolu c'est grave aussi diggante bi yow tu a rien na ngay fay waxuloo dara si affaire fay fay joueurs yi. nii mais mais ñoom ils avaient prévu 5 millions pour les équipes de Ligue 1. waaw 5 millions après ñu xaar novembre. Mhm. mais les équipes de Ligue 1 5 millions c'est leur masse salariale benn pas. 5 millions ça paye pas le mois de salaire de de la Ligue 1 3 millions 500 mais c'est la moitié de notre salaire ñun léegi bu ñu la ko joxee léegi ne la novembre ba léegi dara ñëwaatul. ba pare on te dit de maintenir le contrat des bon oh, loolu sax on peut te dire way loolu loolu boo doon nañ concerté wu. pour ne ah euh, def nañ euh, décision bi mais les clubs mën nañ def lii ah lii ñu jël yeneen mesure par rapport au salaire d'accompagnement non d'accompagnement mais loolu moom état bi lañ doon xam parce que boobu ba léegi ñu ngi yuuxu mais le sport <laughs> fu nekk nii le sport l'état pour l'instant n'a rien fait mhm. la fédération au moins jox nañ jox nañu tuuti mais bon doyul mhm. benn demi mois de salaire lañ am ñun demi mois de salaire te loolu dañ te ñu ne nañ xaar ba novembre mais loolu mënul nekk loolu moo dañu ne mais est-ce que dañu affaire bi loolu da mooy problème bi. Mm. y a y a aussi euh, économiques. Mm-hmm. c'est pas raisonnable. mais mais mais Pape ñoom dañoo def dossier yóbbu ko ci kii parce que xam nga dafa y' a un fonds Covid. wéykat mhm. yi am nañ ci. Mhm. fecc am nañ ci mais le sport dafa def un. ñun ñoo jëkk def dossier au niveau de la de ah kon pourquoi vous pas plaidé kon pour mu jàll. plaidé nañ ba sonn Sayer di laa il a tout na dem na yóbbu ko Augustin yóbbu na ko chez le ministre. Mhm. le le déposé ko déposé nañ yooyu yëpp. li ñu war a am yëpp au ñu ñu ñu contribuer tuuti. mais ba léegi l' état dafa mel ni. sport bi sport bi dafa leen intéressé wul wala déedéet quoi waxuñu masuñu wax affaire sport. wa l' état en tout cas amu leen retour. Hmm? amu leen amuñu retour retour bi ñu am mooy yaa kenn waxuñu dara. <laughs> dafa am président de club boo xam ni dañ ko invité woon temps yii lay passé muy Djibi Wade. Hmm. moom bi ñu ne ak moom presque def nii Covid bi moment bi mu ñëwee euh, dafa favorable sax pour football bi parce que les président de club étaient fatigués les clubs étaient fatigués te amuñu benn assistance financière boo xam ni mun na tax ñu maintenir maanaam seen personnel salarié yi ak yooyu ngay wax donc yéen situation bi am ak arrêt bi da ngeen euh, peut-être ñaanu leen koon moo amee ci lii mais bëggoon ngeen ko def parce que il semble que vous euh, soyez actuellement essoufflé dafa mel ne loolu lay nuru ndax li nga wax nii ak li ñu leen jox ni fayul sax un mois de salaire ak problème yi ngeen am yëpp te ñëwuñu leen en aide situation bi ngeen doon vivre kon c'était difficile est-ce que amoon ngeen position bu leen xalaatoon ni war ngeen ko jël pour au moins situation bi changer. xam nga tant yaa ngi doon jouer da ngay am yaakaar et puis les gens di nga am toujours ñooy nooy nooy nooy nooy nooy régler say problème mm-hmm. les sponsors yu sew yeex yooyu yëpp mën nga régler ay problème ba génn si. ba saison ba saison bi jeex fekk day fekk yaa ngi joué. <laughs> mais yow joué wuloo tu as des yoo xam ne ils travaillent pas bu ñu ne salaire travail la. Mhm. mais dafa metti nga jékki-jékki fay ay nit ñoo xam ne ñu ngi tëdd seen kër. c'est pas facile quoi. du tout et puis ñoom même pour les joueurs c'est pas facile ñoom xam ne ñoom ñoom ñu ngi def ni lu ñu mën ñu ngi entraîner personnellement individuellement et mais euh, dafa metti actuellement léegi li ñu doon xaar mooy que l'État vienne en aide. l'État à la et la fédération viennent en aide de manière plus conséquente parce que bu ñu déggee ko que fédération am na xaalis actuellement ñoom ñu ngi ñu ngi dafay infrastructure ñu ngi ñu ngi mhm. mais li jëkk loolu mooy au moins club yi tax nga am xaalis boobu parce que mhm. club yooyu ñoo formé les joueurs ñoo formé ñoo dem coupe du monde ñoo dem coupe CAF joueurs yu bari fa lañ jógee mais au moins nga delloo leen tuuti njukkal parce que on est dans des difficultés mais Covid bi même su fekkoon ne Covid bi ñëwul nii effectivement les clubs étaient parce que club yi bokkuñu ah mhm. club yi bokkuñu ay problème mais kon 150 millions yi ñu leen joxoon pour ngeen démarrer euh, jeex na. 150 millions yan. yi euh, fédération bi joxoon ligue bi pour mu démarrer. te comment loolu c' est la ligue. c' est la bi ligue bi la la la fédération dimbali ligue bi le fonctionnement de la ligue. parce pour mu organiser. ligue bi organisé wul dara les c'est les clubs qui organisent les matchs. non dama ne xaalis bi ñu leen joxoon. Hmm. pour organisation match yi la woon. déedéet organisation match yi c'est les clubs qui hmm. organisent les matchs. pour les arbitres. mais ñoom ñooy ah, programmé ah, arbitre ñooy ñooy programmé ñooy fay yi. c'est mais à part à part organisation match bi si boppam kan mooy fay policiers yi kan mooy fay. sapeur pompier kan mooy fay stade bi. c'est les clubs club bi la bàyyi leneen lépp. léegi ñoom ils avaient la la Ligue euh, de te te te moom lay wax souvent même jox nañu bi yoon cent cinquante million yi ñu dem ba non cent cinquante millions c'est un budget mhm. budget bi presque jeex na am mhm. am ah, ah, ah, parce que jeex na parce <laughs> léegi fédération day indiwaat léegi on va vers on va vers la faillite ba fédération day beneen cent cinquante millions pour ñu man continuer léegi lan mooy problème bi. kon léegi yéen lan ngeen xalaat yéen yéen président de club yi lan mooy seen position. ñun suñ préoccupation. Uh-huh. mooy ñu xam naka lañu ñu mën de manière vraiment pérenne naka la ñu mën def de telle sorte que euh, euh, euh, ligue bi autonome équipe autonome ba mën a jàppalewaale club yi par exemple dañuy jël ay exemple yu simple exemple Côte d'Ivoire cote d'Ivoire da nga naan salaamaaleykum Ligue 1 ñu jox la benn 70 millions Ligue 2 50 millions démarrage saison parce que dañu am Canal Plus bu nekk ci gannaaw mais fii ligue bi bu ñu bi jàppale woon ñu am Startime par exemple. certains mu ngi fi woon avec xaw ma ñaata milliards. yu mu waroon dimbalee ligue bi ligue bi nag bu boobaa c' est des droits télé droits télé yooyu nag club yi ñoo ko moom. Mhm. te loolu la état bi mënul fexe ba xaw ma dañ comprendre wala ba ñu si dugg alors que mënoon nañu xool naka la ñu mën a euh, concilier euh, waa euh, ñoom TNT les gens mhm. de bon bëgguma tudd seen tur. Mhm. StarTime ñeneen ñi comme ça Star Time bu ñu mënoon dimbali on avait pratiquement signé ce contrat là. Mm-hmm, mm-hmm. parce que boo amul droit télé. dans le football actuel professionnel. Mm-hmm. da ngay sonn. mais Aziz dafa am benn problème interpellation bu ñëwaat. Euh, xam nga wax nga lépp ne équipe yi mais tamit par équipe yi tamit je pense que elles ont intérêt à faire des efforts xam nga équipe ay temps wu COT. équipe ay Almadies Ouakam yooyu ak ay foyer France Sénégal ce n'est plus valable en deux mille en deux mille vingt. Mhm. bu njëkk c'était des clubs je parle sous le contrôle de Pape nit moo doon jot ci poosam dem ay dirigeants. yow yow yow yow yow yaa ngi. bu njëkk sax du kan yow li nga def Ouakam sax. seen waa kër yëguñu ko. sa sa sa sa yëguñu ko. mun a fexe ba génn ci yenn situation parce que tamit à la longue yow ak ñëpp ci cotiser tamit da ngeen toog parce que tamit y les enfants qui grandissent et yëpp day taxaw day am beneen urgence que club bi. Mhm. souvent mu explique c'est-à-dire man li wax moom mu nekk une solution structurelle et non conjoncturelle. pérenne boo xam ne moom ngeen trouver le problème du football. exactement ñun si lañ nekk. Mhm. au niveau de Wakam. voilà ah, ah. en train de réfléchir là-dessus. Mhm. am suñuy euh, euh, euh, patrimoine. boo xam ne dinañu permettre ñuy am d'autres ressources additionnelles yu ñuy euh, toog di cotiser cotisation yooyu xewi na. Mhm. actuellement soit dangay ngay benn joueur. Mhm. am xaalis mu yor la quelque temps nga xam ne di nga mën fay say salaire di nga mën fay di nga mën def ay investissement yooyu léegi investissement yooyu nag ñoo ñu war a man dimbali pour ñu mën a indépendement de la ligue. Mhm. Euh, euh, am mais boo jógee ñëpp yëpp ñu sànniwaat ko si si club yi. club yi bokkuñu yëpp ñu ne waaye club yi nañu nañu nañu débrouiller uti yi ay sponsor uti ji. Euh, nu ñu mën a yore seen club si lañ dëkk boobu ba léegi. Mhm. depuis le temps boobu mhm. loolu la ñuy def. Mhm. ñoom ñu moo tax ñuy boobu ba léegi yaa ngi gis club bi di ah. mais kenn xamul euh, nu ñuy def ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi wut ay ressources. avant ñu sotti ci Wakam sax yéen comment l'US Wakam a géré cette situation de pandémie da ngeen libéré joueurs yi parce que yéen ci ñi ko def communiqué ngeen bokk bi Covid bi amee. situation lan la woon petit rappel bu ndaw rek da ngeen bàyyi jour ñu dem est-ce que vous avez maintenu les est-ce que vous avez programme individuel comment ngeen gérer crise bi au niveau de l'union sportive de Ouakam crise bi franchement kenn xalaatul woon ne dina ah, guddee nii <laughs> kenn xalaatul dañ jékki-jékki le 14 mars ah, ñu jékki-jékki fédération mhm. à à travers le ministre des sports le ministre de de de, de la santé mhm. fédération ne léegi dañu arrêté tous les trucs sportifs bon bu booba ñun tamit le lendemain ñu réunion ñu ne ah ñu tamit nañu arrêté parce que ñun dañu amoon ay joueurs yu yu yu yoo xam ne ils en euh, en pension et tout ça ñoom ñëpp. en pension. waaw waaw parce que bon suñu une bonne partie de nos ñu ngi ñu ngi dañ dañ foofu lañ dëkk ñu ngi nga xam ne les joueurs euh, étrangers de Wakam étrangers entre guillemets quoi. am na ay joueurs yoo xam ne ñu ngi dëkk Casamance ñu ngi dëkk Gambie ñu ngi dëkk parce que le football est yàlla euh, léegi fu mu nekk des joueurs peuvent peuvent venir de partout ah donc bu ñu ñëwee yenn yi duñu leen bàyyi ñu dem naan dañu loué ji ay néeg ak yooyu on ils sont ensemble def benn famille et euh, joueurs yooyu il fallait que ñu ne leen ah fu mu nekk nii avec Covid bi on a libéré tout le monde même réunion sax amatul mm-hmm. on a dit réunion hier joueur hier entraînement euh, euh, collectif yëpp nañ ko arrêté léegi l' entraîneur nag moom moo xam euh, dafa commencé woon di def des programmes individuels aux joueurs. Souleymane Diallo gars yi dem joueur Souleymane Diallo donc ñoom ñëpp ñu dem di def seen entraînement noonu mais da dem ba toqi mhm. donc boobu ba léegi nag si loolu lañ nekk ñu noonu lañu gérer le le Covid léegi les salaires bi ñëwee quand même fin du boobu on a tout payé. mars fin mars boobu. mais 20 avril bu fekk 20 euh, avril bon ñu commencé ñu ne ah gars yi boobu léegi defuñu dara <laughs> bon mais jot koor gi mënuñu leen seetaan aussi. Ah, ah, ah. ñu dégg ne dinañu jox euh, un demi mois de salaire 3 millions 500 bi ñu waxee ñu ne ah ba aussi. Mm-hmm. ñu fay leen beneen demi mois pour ñu xaw a suqaliku tuuti mais mais ça c'est pas suffisant. Mm-hmm. parce que tamit ay pères de famille lañ. mais li état bi di fàtte mooy tous ces clubs bu ñu xoolee tous les joueurs yi ñu jël mais mais mais c'est beaucoup de. d'emploi euh, c'est beaucoup d'argent donc il faut que ñoom ñu xalaat ne ay ay euh, on on est on stabilise les gens on on on, on forme les, les les jeunes on les éduque et puis drogue yéex affaire yi jën gars yi ñu ku nekk ngi xalaat dem nekk ay Drogba nekk ay ngan di jouer ay Sadio Mané gars ñoom ñoom ñu am yaakaaru benn jour ñu transfor ñu transféré leen donc bu ñu jékki-jékkee ñëw a cause de ces affaires là ñoom duñ ñu dimbali ñu bàyyi ñu noonu au lieu d'aider euh, les clubs à entretenir ces la mais dañuy toog rek ñu ngi noppi kenn kenn du wax. Mhm. c'est ça président xalaatoo kon yéen président de club war ngeen daje seen biir. Mhm. problème yi ngeen am ngeen dem soumettre ko ku mel ne ministre bi toog waxtaan ko moom ni ko loolu dafay fekk d'abord moom la ñuy def nii au niveau de la ligue. c'est-à-dire ngeen waxtaan ak fédération bi. d'abord la ligue la ligue ñoo boole mhm. lëkkaloo. ñu waxtaan génne papier boobu def nañ ko ba pare. jox nañ ko le le la le ministre à travers la fédération. waaw jox nañ ko mais. mais toog ngeen waxtaan ak fédération bi ak ministre bi. ah si Sayer toog na waxtaan Sayer c'est le président kam ñun dem pour l'instant mais au moins Sayer dem na toog ak ministre bi moom. ak président bi ak ministre waaw moom loolu wax. mais man ba ba di soit ci Wakam tey gis nañ tamit euh, équipe boo xam ne bu am patrimoine la. patrimoine foncier au début tubaafakàlla macha allah est-ce que ngeen xalaat par exemple seen seen seen bi ngeen ngeen defaraat ku yu valorisation seen patrimoine foncier bi nga xam ne am ngeen ko. defar centre de formation. parce que lu ci ay projet la bokkoon xaw ma na fu ngeen toll léegi parce que Wakaam rek tubaar fakal la lu jafe ci équipe am. Mmh. am na une base suuf taxu ko fu ñàkk noonu comme men ay Médina ak yooyu noonu. suuf commencé na ñàkk waaw ah, commencé na ñàkk waaw <laughs> <laughs> waaw parce que. population ah, tax léegi est-ce que am ngeen ci ay projets sur le plan foncier pour Wakam am vraiment un patrimoine foncier. on a des projets extrêmement ficelés. Mm-hmm. yëpp jeex na les plans BA on a des des des projets d'immeubles tout ça ñu ngi ñu ngi fii te ñu ngi koy barkeel parce que immeuble boobu bu ñu ko defoon tey. Mm-hmm. ba def les les locations et tout ça bon tu me diras c'est autre chose par rapport au sport. mais au mm-hmm. moins ça nous permet. suñu siège suñu siège fa lay ne. Mm-hmm. mais en même temps ñuy defar dañ koy louer loolu on le sait on l'a on a le projet. léegi on attend l'accompagnement juste des des autorités administratives et des euh, communales. Mm-hmm. et coutumières ñoom ñoo ñoo ñoo ñoo ñuy xaar ñu xaw ñu jàppale tuuti pour ñu am nañ le site aussi am nañ ko. am nañ le site léegi juste accompagner ñu pour ñu réaliser ko ensemble au moins une partie. ça nous permettra de souffler un peu quoi. est-ce que est-ce que am ngeen ay partenaires pour loolu des partenaires parce que ku wax am am parti am am. am il faut am partenaire bu ñu la jàppale nekk si ginnaaw pour pour maanaam ay banques yeeg borom alal yeeg yooyu noonu de. non loolu amul dans la mesure bi fi mu nekk nii. Euh, terrain football pratiquement amoon nañ partenaire malheureusement diggante bi dafa dafa de si camp militaire bi loolu après finalement mu yàqu mu yàqu quoi. Mm-hmm. militaire dañ ko soxla fi fi fi ñu bëggoon jox. Mm-hmm. te defaroon nañ ko ba pare. Mm-hmm. jënd nañ am nañ suñ gazon synthétique. am nañ lépp pour faire un terrain de football mais malheureusement affaire boobu amatul léegi on est en train de voir au niveau de Wakam. Mhm. feneen fu ñu juste def affaire boobu di ñu xaw a tuuti. Mhm. mais on est on est ah loolu ngeen bëgg. loolu lañ bëgg di recevoir Wakam defar suñu terrain synthétique foofu et puis vraiment jeunesse bi yëpp ànd nañ si te loolu lañ loolu lañ bëgg a def centre. de formation. Mhm. mais oui actuellement on a une académie. bu ñu mettre en place. Euh, am na suñu benn maam Diagne Gueye moo koy diriger c'est lui le vice-président chargé de ça euh, on a fait tout tout est ficelé mm-hmm. et puis euh, def nañ même les les premiers recrutements et tout mm-hmm. euh, donc avec les les écoles de football et tout ça donc fi mu nekk nii loolu tamit c'est en cours c'est c'est bien lancé c'est c'est que loolu mën na mën na am un un délai boo xam ci la war a noppi mbala lépp dafa dafa dafa taxaw ci wàllu Covid bi non non loolu bon Covid moom arrêté na tout le sport ah. <laughs> Covid moom lépp la arrêté. Uh-huh. même ñu réunion tuñu normalement bi ñu uh-huh. réunion c' est au téléphone wala des trucs comme ça euh, c' est pas de de de de de passage c' dire yéen li ngeen am dafa am uh-huh. loolu am. adhésion am supporter am ñu nekk seen ginnaaw. Wakaam lu mu difficile am na ñoo xam dañ koy faral. te ñuy jeu démb yi nga xam ñoom dañuy jeu démb donc am loolu yëpp mais amul ba léegi loo xam ne lu concret lu dirigeant yi def la. Mhm. ci li ma gis boog man peut-être yéen est-ce que xalaat ngeen enjeux yi pour relever le défi par rapport ak tous les actes yi nga xam ne am nga ko contrairement amuñu ko par exemple ay ay ay ay ay ay gore amul loolu. li nga xam mais loolu c'est la base de notre mission. bi ñuy doog a fal. Ah. ñun loolu mooy suñu base. Mhm. ñun on avait dit que ñu def on on va sap on va tout faire pour euh, euh, faire des infrastructures def le terrain de football def le terrain de basket. def vraiment et puis def euh, ériger un siège. Mhm. waaw loolu moom parce que depuis 1951. mais vous êtes soutenu par la commune. Hmm? mairie bi. bon mairie bi taxuñu ko soutenir wax dëgg yàlla parce que mairie bi soutenir ñu bu bu ñu waxante dëgg rek soutenir bu baax quoi parce que tamit loolu mooy normal <laughs> mairie bi bu ñu xoolee li mu ñu jox c'est pas très significatif par rapport a li mu ñu waroon a jox. Mhm. loolu mooy problème bi waxuñu ne kenn su deru ñu mais euh, de temps en temps nga jékki-jékki bon am benn benn cinq millions pour pour l'année pour un club comme ça mm-hmm. wala nga xaar foog nga yegg finaal pour ñu jékki-jékki def benn geste. pour pour visibilité bi voilà c' est peut être ça mais euh, pas pour sànni leen ay bon <laughs> mais au moins yi euh, waroon nañu gën a jàppale lii quand même. ñu am club bu final la bu ñu amee final. ci la dëkk bi di yëngu. tout le monde tout le monde est mobilisé. c' loolu loolu moo jaaxal ça li ñu am bon je pense que du ko exploité bu à mais des na. wax ka waroon na mun a mun a am. événement am lu am lu te comme la aliment am terrain am am tout. amuñu terrain yi ngay dégg noonu yow ay terrain ay suuf yi ñuy jaay yooyu yëpp mais malheureusement club bi si boppam. mooy am am amuñu. mais fa ngeen dëkk war a porter combat fa ngeen dëkk yéen. waaw fa ngeen fa ngeen fa ngeen <laughs> fa ngeen dëkk mais dañu am benn coutume aussi bu fi nekk. boo xam hmm. ne bon y'a y'a y'a y'a des c'est pas facile eh waaye. mais est que yéen seen joueurs yi ngeen jot a ay ay Baye Omar ils vous apportent quelque chose yi nga xam ne dañ jaar waxtaan ils apportent quelque chose au club jusqu'à présent pas de li ñu nekk nii seen position mais mhm. biñ leen biñ leen jaay seen transfert yi. Mhm. bon joxoon nañ ñu quand amoon nañ si des ressources. yoo xam ne mhm. ça nous a permis moo ñu moo ñu téye fi mu nekk nii quoi moo ñu téye à un moment donné après jékki-jékki mu amaat beneen euh, bon vente de. de de de droits économiques ak ah, Mamadou Ndiaye Loum. Mhm. ça nous a permis aussi de. Mhm. Loum Ndiaye. waaw de de de de de de passer cette saison ak yooyu. Mhm. et de faire quelques investissements. mooy li ma lay wax le le le gazon synthétique ak yooyu yëpp aloo que yooyu yëpp normalement franchement man sama avis moo di que c' la commune wala c' est c' est. collectivité locale collectivité locale wala. ancien international waaw te kilifa la. kilifa yi la mais bëggoon na vraiment ñu mais dignitaire yooyu nag ñoo ñu waroon jàppale. ñoo ah ñu waroon jàppale. Omar Gueye Samb a joué à Wakam. Mm-hmm. ancien international. Mm-hmm. tey ji jaraaf man man di ma gën a jaaxal tamit ak seen yi nga xam ne habitants Wakam macha allah yi nga xam ne ils sont à l'extérieur c'est de grands noms soit. dans le management soit quelque chose au niveau du club ñoo xam ci club bi lañ jaar ba xam leen ba ñu ñu bañ a tudd ay tur bon euh, pour l' instant bu ñu amee ay en tout cas ay euh, ay final wala des trucs comme ça c' est euh, sûr que gars ay ay ay Zamado ay bu yàgg bëri na bëri na bëri na. ay ay ay Maliku Jaxate ay Ngira mm. Ndaw ay famille bëri na ñu bëri na fa ak mm. ak ñoo xamul. Mm. ak ñoo xamul donc ñooñu il pouvait apporter est ce que Aziz yow tam ñooñu. mën nga leen seet contacter contact pour pour quelque chose parce que. parfois il faut ñoom tam wakam ak parce que Wakam ak contribution à à leur promotion à leur ascension. Mm-hmm. c'est sûr loolu moom euh, c'est ça fait partie <laughs> des des choses qu'on fait régulièrement mm-hmm. bon waxuma ne masuñu def dara. Mm-hmm. dinañ dinañ contribuer mais par rapport à li ñu koy xalaatee. mooy demewul noonu ko demul noonu. ah kon donc yéen moom kon c'est pas facile c'est pas facile c'est pas facile c'est sûr que c'est pas facile. est-ce que doo dem ba sax yow. <laughs> Euh, non non xam nga dañ on a on a un mandat. Mhm. dañu trois ans renouvelable. Mhm. bon léegi. Euh, du question xaddi parce que mission la. Mhm. xam nga bu ñu la joxee dafa dafa dafa mel loo xam da nga ko da nga ko hérité. Mhm. mais du warul warul say sa loxo quoi. Mhm. donc da ngay da ngay tànk tuba def tout pour que mu dox. léegi nag bon jéem fi bàyyi dara parce que ñii sama prédécesseur yëpp <laughs> ñoom Blaise ñoom Omar Gueye Ndiaye ñoo ñëpp. gaañ nañ gaañ nañ dara de. ñoo gagné moom laa mën a jëftu pour bàyyi fi dara. <laughs> donc ñoom au moins gagné nañ dara. waaye léegi ñun gagné <laughs> gagné gu ñu dara. bon bien que dem nañ finaliste coupe de la ligue. c' important. Ah, loolu la gagné nañ tas aussi. c' important. bon donc euh, euh, dañu xaw a ñàkk chance rek si côté boobu. mais euh, il faut que ñu jéem a def de telle sorte que bon au moins bàyyi fi dara. et puis en basket aussi parce que Wakam benn problème la ñu am. on n' est pas que le football natation athlétisme. Euh, euh, euh, athlétisme kii. basket natation. basket natation football. Mhm. athlétisme mhm. des na benn. tennis de table. Mhm. tennis de table te yooyu yëpp on a des champions. on a des champions. basket moom ça basket moom. natation moo gën a pire encore man on a que des pratiquement Sénégal bon on a. même coupe d'Afrique. Euh, am nañu ay ay Sénégal am nañu représentant euh, au niveau de. de la natation et le triathlon. ak bisu c'est pas difficile de gérer euh, les cinq disciplines à la fois. non non c'est pas c'est pas difficile c'est pas difficile parce que bon on est assez organisé. Mhm. on a chaque fois des des vice-présidents qui sont chargés de lii wala la donc le football aussi bon dañ ko jox benn cër boo xam ne c'est ñi ñu organisé wu en tout cas avec un président am na un président exécutif aussi. Mhm. c'est important ñun ñëpp avec. tous les démembrements ñoom ñëpp ku nekk da ngay xar sa tànk tubéy pour que affaire bi dox. est-ce que xaar ngeen ubbi capital pour pour pour pour la base de du football professionnel. Mhm. bi ñuy def le football professionnel loolu la ñu waroon démarrer yoo xam ne lañ moom la ligue bi waxoon mais fi mu nekk nii boo xoolee. mais pratiquement amul bariwul amul amul ci club bi fii professionnel bi parce que dañuy fay rek mais sinon. Ah, on n'est pas am ne sax ñu yoroon SA yi dañ fa jëlee. ba voilà comme wax comme par exemple président bi. Yatta Say Yatta Say mhm. dañ ko mujj dégager. moom laa lay wax cest à li li ñuy dese professionnel mooy li ñuy fay salaire mais sinon bi dafa des mais ñun on est tout faire. pour se rapprocher le plus possible du professionnalisme. Mmh. Mmh. donc moom moo tax ñuy commencé depuis le début def les petites catégories di yéeg di yéeg di yéeg et puis on on essaie de nous organiser am des des financiers des des présidents commission des finances yëpp. Mmh. on a des des comptes yoo xam ne vraiment euh, vraiment on a on n'a pas de problème dans ce sens là. donc loolu la quoi. <clears throat> beneen laaj bi ma la bëgg a laaj est-ce que tey jotul tamit Covid mënoon tax situation ñu waxtaan ci football professionnel parce que Djibi Wade wax na ko fii bi ñu ko invité. Mhm. dafa waroon parce que on a on annoncé benn symposium au mois de mai ou mars pour pour football professionnel. parce que tamit c'est difficile dix ans après boo xoolee ci co ci résultats yi suñu équipe lok équipe yi dem Coupe d'Afrique dañuy dem toog premier tour. équipe locale bi mu qualifié ko def donc ma est-ce qu'on peut situation yëpp que le football professionnel est un échec au Sénégal. un football malade. un football ah loolu loolu tout le monde le dit ñëpp xam nañ ko parce que pendant dix ans. yëpp mhm. boo xoolee club bu nekk club de parce que. le budget d'un club de Ligue 1 d'un club professionnel en tout cas tourne autour de cent millions par par par cent millions cent millions. et boo xoolee dix mhm. chaque fois sans assistance et chaque fois pour am lan. pour am benn dix millions wala boo ko jëlee boo demee ba jël benn euh, champion tu as vingt millions est-ce que donc tu es en déficit. Mm-hmm, mm-hmm. yow benn club gañewul xaalis fi mu nekk nii chaque année tu es en déficit. mais kooku président à long terme est-ce que dina mujj arrêter loolu. mais foog ñu foog ñu arrêter parce que le problème mooy mooy li ma doon wax sànq. Mm-hmm. il faut que ñu dem ba la ligue autonome autonome avec les clubs bu ñu la la parce que la ligue est constituée club yooyu bu ñu demee ba am benn benn euh, sponsor bu mag genre ay Star Time wala Canal Plus. Mhm. nga xam ne il donne des milliards. Mhm. ah ay affaire ñàkk yi. c'est pas pour rien que les suñu joueurs Sénégal di dem jouer ji ay ah, Mauritanie. Ah, ah, di dem jouer ji ay Guinée. pour 400000 ay ay ay ay Maroc. pour 400000. 500000. car ñu dem foofu la parce que mën ko am fii Aziz. mën loo ko am fii. <laughs> mën ko am fii alors que bu fekkoon ne fi mu nekk nii tey am nga ay droit télé. Mhm. ah yokk si nag say sponsor ça veut dire que sponsor yi dañuy ñëw. forcément. Mhm. parce que yow booy joué sponsor yi foofu dañuy bëgg ñu gis seen tour <laughs> visibilité voilà. malheureusement bon sponsor yi. Euh, loolu lañ gis yow di wax c'est que. Wakam a un public mais tous les euh, toutes les équipes n'ont pas de public. moo tax bokkuñu ay problème tey fi mu nekk nii nañ joué nañ joué. Uh-huh. comme buñ que ñu joué ak ak ak ñoom wala ñu ñoom ñu buñ joué wala ñu bañ joué c'est pareil pour eux parce que du ñu am public. Uh-huh. mais c'est important c'est le uh-huh. public qui part. mais léegi léegi li ñu bëgg li ñu bëgg def loolu nag après mooy jékki-jékki waaye yow sa sa sa public du dem ah, parce que huis clos lañ ne. parce que pandémie bi fan y a des problèmes donc tant que pandémie baa ngi fii mhm. nañ xoolaat dañ jël dañ ñun dañ ne nañ arrêté mhm. et puis xoolaat fu ñu jëm mhm. naka lañ mën def parce que quand même euh, les gens là ne sont pas bêtes y a des y a y a beaucoup d'intellectuels là-dedans et bu boobaa ñu dem xoolaat état bi ne leen bon léegi fi nekk est-ce ngeen ñu accompagner pendant deux trois ans parce que milliards yi ñuy joxe ailleurs là les taximan les trucs mm. mais sport bi si bokk. les les ah, artistes dañ ko porté kat ñoom yóbbu ko. kaas ko ñu am am ko. waaw mais léegi ils ont mené ils ont am leen mouvement lépp foog nga def foog nga def combat foog nga xeex pour am dara. c'est c'est c'est dommage et donc bu fekkoon ne coupe du monde dafa ñëw. Uh-huh. mais ñëppay nekk way gars yi Sénégal des joueurs ñëppay ñëw. bu fekkee ne géologie la ñëppay ñëw yàkkamti way les communes et cetera mais c'est le sport surtout football bi. mais football bi li mu indil Sénégal mais benn yeneen ñi indiwu ko. Mhm. de ne serait-ce qu'en notoriété. Mhm. da ngay dem benn pays boo ne Sénégal mais football bi la ñuy xalaat d' abord. Sadio Mané El Hadj <laughs> <laughs> Sénégal foofu la ñu ko xamee. football bi moo tax. Mhm. mais léegi au lieu état bi nag defal njukkal football bi delloo ñu euh, à l'ascenseur mais dañuy toog ñu ngi seetaan. ñu ngi toog léegi tant que xeexuloo wala nga toog di télé di wax n'importe quoi wala saaga ministre bi loolu tamit du du du yoon. man li ma bëggoon décewaat ak yow gis nañ ne vous avez fait un début de saison exceptionnel Wakam. Mm-hmm. ba talan Linguère Linguère de Saint-Louis pour di la deuxième place est-ce que ngeen ren ne ah moom ça toujours été notre objectif on a travaillé dessus depuis le début depuis euh, la préparation hivernale on a mm-hmm. mis les on a fait des recrutements on a pris un entraîneur de haut niveau. Mhm. et yooyu yëpp c'est pour yéeg. Mhm. c'est pas pour toog fii dem def def de la figuration. donc on y croit toujours te on croit toujours à la première place. ah bon ah oui mais bien sûr Linguère Linguère raw ñu lu bari deux matchs lañu rawee. deux matchs lañu rawee. mais tout. six points. donc c'est c'est encore jouable. c'est rien du tout non non non non est-ce que amaan na engouement ak retour wakam amaan na tëj biñ tëj xam nga Demba Diop ay Wakaam ñaari tali Wakaam jaraaf c'était vraiment extraordinaire euh, est-ce que ah, mm-hmm. ñu ngi dem jouer ji ay géejawaay ay géejawaay ngeen di jouer ji est-ce que le public mm, xam ne ñoo si boo Wakaam dañuy dem di ñafe di dem jouer ji <laughs> foo am na ñoo xam ne foo leen génn ñu fu fu Wakaam jouer dañuy dem ah mais on a un comité de supporters boo xam ne vraiment très dynamique dañuy def par quartier di chaque match ñu dem à leurs propres frais. à ah, leurs frais chaque ñu dem. même ah, dans les régions. même dans les régions amul benn match bu ñuy raté <laughs> même dans les régions. mais yéen loolu mooy doole Wakaam. motivation bu baax la mais oui mais Aziz moo tax yéen bëgg leen bëgg leen yooyu bëgg leen ko. <laughs> dafa normal loolu ko dafa dul football. <laughs> football boo gisee man l'autre maa ngi seetaan euh, les coupes européennes là. dañ mhm. teg ay carton lañ teg nii ba pare teg un fond de. ay mm-hmm. spectateurs mais loolu loolu loolu c' est pas le football. football c' est pas football. on dénature le mooy les supporters. football mooy mooy mooy mooy l' enthousiasme. gars yi ñëw def ay spectacle gars yi tàccu la. et puis ñenn ñi booy yi pour ñu gën a transcender seen bopp mm-hmm. mais foog ñu am benn public ku seen i fans club. ñoo xam dañuy ñëw jouer. Mhm. ñu lay gis et puis si lañ lay gisee pour euh, pour éventuellement nga dem à l' étranger. comme euh, li mooy pousser équipe à voilà.

temps. Mhm. te dinañ am suñuy recette. Mhm. dinañ suñu recette boo xam moo moo nar moom recette yooyu. te bu mhm. boobaa les supporter mais ba ay Barcelona yi pourquoi ñu am. mais seen entrée mais seen entrée yi am na ñoo xam dañuy jël abonnement ay ay abonnement ay am. te fi waxam bu ñu defoon tey nii mais abonnement yi ñëpp ay ñëw. waaw booy sat bi duñ fa xaj sax. <laughs> parce que c'est ça le charme de Ouakam. c'est mais est-ce que am ñu wax ne vous êtes vous êtes organisé yéen a ngeen club pour demoon bras de fer ak la fédération wala c'était pas le cas. non non mhm. bi. mais am na équipe yoo xam ne ngeen xam ne bon bu bon de fer je sais pas xaw ma na dañ def. bras de fer mais dem mën a mën a bañ a jouer bi mu dalal lu nekk yéen ngeen bañ ko jouer ut ci ay ñu ngeen ànd pour ngeen mën a le combat. bon bon ñun defuñu doolu ñun defuñu loolu ñun ñun dañu ne mais vous étiez contacté par certaines équipes. bon mën nañu contacter y' après ñun on a répondu par le communiqué. Mm-hmm. communiqué bi ñun dañ on s' est réunis ñu ne ah. ñu ñun on n'est pas d'accord avec les playoffs play down. Mm-hmm. mais bu ñu ne ñu dem jouer ji après nga xam ne la la la fédération à le dernier mot. Mm-hmm. et dañuy dem jouer ji. parce que tamit bon ñun on ragaluñu jouer ah. on on va aller jouer y a mais xam nga ci xaw a jaaxle c'est contradiction parce que au moment on arrête annule Pape coupe du Sénégal coupe de la Ligue bëgg bëgg <laughs> bëgg a gélo affaire bi. dëgg annulé coupe du Sénégal. Hmm. annulé coupe de la Ligue ba pare bëgg reprendre championnat au mois de novembre man daf may poser problème. man daf may poser problème mais peut-être d'ici parce que maa ngi dégg tamit ñu fort ci wéyu béykat ne comme y a rencontre au mois de juillet prochain incha allah Ah parce que lii tam jëm ci crise parce que lii tam. baaxul jëm ci une seconde crise du football moom xam ne dañuy dem ci ay ah, coupe du monde dañuy dem ci crise ne mais c'est quand même dangereux mhm. de copier ñeneen ñi ñeneen ñi reprendre seen seen seen championnat parce que ñooñu dafa am fu ñu wekku ñooñu dekk nañ déjà trois télé yi bu yàgg ñoom seen <laughs> seen seen i budget fees na bu yàgg mais actuellement fii club yi pour fay seen salaire sax problème la mhm. ah yow nga man toog bi mooy problème c'est pas parce que da bañ salaire fay salaire de mais le fait nga toog. ba pare boo paree da ngay reprendre encore beneen euh, euh, préparation hivernale après reprendre encore beneen budget la parce que c'est une autre saison. saison bi jeex na man pour man jeex na parce que toog pendant dafa mel ni nga toog pendant xam combien de temps da ngay demaat jàng da ngay toog mois non 3 mois mooy li ñu def dafa ko mais c'est sûr que <laughs> yow yëpp ay ay supposition supposition yow yow da saison bi ñu annulé ko. pas annulé. arrêté ko ñu arrêté ko annulé. mooy bi ñu ko arrêté nag kon. ñu def ci arrêté. proposition bu ñu ko arrêté. franchement y a qui ont travaillé. Mhm. dem nañ ba nekk premier deuxième. Mhm. nañ leen bàyyi ñu dem parce que c'est ça que. Euh, euh, euh, yoo xam ne ñeneen ñi aussi. c'est pas normal que ñu jékki-jékki wàccee leen noonu parce que amoon nañ chance peut-être yéeg. te loolu mhm. du wàcce. match retour yi mooy mooy championnat de. waaw match mooy définir en général championnat mais même match retour bu ñu ko defoon tey chaque fois kii goal average rawee kële bu paree yëpp premier bi mën na rawee deuxième bi benn goal loolu mhm. c'est le football. c'est la mhm. loi du jeu. c'est une compétition donc. il faut que ñu xam ne loolu c'est pas kenn mënu wax ne moo kan mérité wul fi mu nekk nii. on a travaillé euh, on a travaillé. bien sûr donc une bonne équipe. une bonne équipe. Mm-hmm. et puis on était en dans mu nekk nii bu ñu jofoon tuuti mais dañuy romb gars yi dem suñu yoon. Mm-hmm. donc fi mu nekk nii ñun pandémie bi daf ñu xaw a freiné. Mm-hmm. mais on était bien parti. li ñu defoon préparation hivernale mu ngi doon commencé paye ça euh, porte ses fruits. jékki-jékki benn jour ñu arrêté ñu ne dañu annulé mooy boo annulé aussi c'est pas normal ça veut que li nga def yëpp da nga koy perte. loolu mooy annulé. Hmm. ça veut dire que dañuy recommencer à zéro. Hmm. mais loolu loolu loolu kenn d'accord même au niveau de la ligue loolu lañ jëkk bale balayé kenn d'accord si moom benn club d'accord si annulation. Hmm. léegi nag ndaka la ñuy def ba ndax day am montée descente donc lañu loolu la ñuy war a vérifier ndax dañ ñii dañuy wàcc ndax dañuy yéeg et cetera loolu c'est une réflexion. moo tax ñu ne pour pour arrêter ça nañ bàyyi ñi yéeg yéeg. ñeneen ñi nga xam ne dañu war a wàcc ñu bàyyi leen et puis mu nekk dans toutes les autres euh, euh, catégories. Mm-hmm. même au niveau national au niveau kii ñoom ñi nekk premier ñu bàyyi leen ñu yéeg et cetera c' exceptionnel. bu ñu yéegee. Mm-hmm. pour yokk. dañu yokk dañuy jouer à 16. Ah. te bu ñu jouer à 16 exceptionnellement pendant les deux ans la wala un an. Mm-hmm. l' année prochaine nag wala kii ñu xool nag loolu c' est pas la première fois. mu am Sénégal revenir à la normale. revenu à la normale am parce que am na benn année boo am na sax parce que am na ñu ci proposition am ñu wax ne par exemple amul fekkee amul wàcc ñu yéeg année bi ci topp quatre wàcc. par exemple yooyu yëpp ay kii la te loo ay formule la. Uh-huh. waaw yooyu yëpp ay formule la. waaw non fekkee deux moo yéeg. kenn wàccul. waaw bu fekkee kenn wàccul deux yéeg muy seize. muy dix-huit par exemple année bi ci topp. waaw c'est exceptionnel. parce que Covid moo tax. mais Linguère ak parcours bi ñu def Wakam ak parcours bi ñu def ñu jékki-jékki rek ñu ne la way bon léegi euh, voilà <laughs> jeex na quoi nañu annulé léegi ne recommencé à zéro. c'est pas c'est pas ak soo si service commercial soo si jëlee. bienvenue ngir massage bu jaar ci yoon taamu leen gaam Piro Valda Val d'Afrique ak Piro Valda ñoo leen di may seen émission rétro sport. Ah, kon mbokk auditeurs yi. gi tey moom mooy Pape mooy Aziz euh, Guèye bu bu Union ñu waxtaan ak moom maanaam ci championnat bi ñu war reprendre ak euh, euh, jafe-jafe yi nga xam ni club yi am nañ ko ak tamit playoff yi ak euh, play down yi donc daal Aziz daal pour daal saison bi saison spéciale la yow lan nga proposé ni xëy na buñ ko defee mooy meilleure solution bi kenn du ci gaañu. la solution moo doon ñu match yëpp les treize matchs. Mhm. et je pense que fi mu nekk nii. malgré la la la la situation. déedéet ma ne. après pandémie bi. solution. mais kon dañuy chevaucher du ñu chevaucher kon. ci loolu mooy bu fekkoon ne dañu man a euh, rapprocher bu ñu mënoon rapp tey fédération ñu ngi ne di ah actuellement xëy na ñu ngi xalaataat. pour pour vu que allégé nañ les mesure mhm. est-ce que du ñu. rapproché au lieu de novembre est que du ñu jouer août. Mhm. bu boobaa dañ def nii dañ def ne pour jouer les les matchs retour bon. ñu xool. Hmm. ñun daal en tout cas ñu on est prêt. Wakam pare nañ bu ñu ne ñu joué treize match ñu joué treize match bu ñu ne ñu joué ñu joué euh, play off play down ñu joué play off play down mais d' accord ñu si play off play down loolu dañ ko wax li ñu waxoon ñun pour ñun nañu arrêté ñu yéegal léegi nag bu neexee ñoom ñu def leneen mais loolu après ñoom ñooy ñoom ñooy set hmm. mais ñun loolu la ñu wax. léegi bu fekkee ne nag la fédération dit que dañuy continuer dañuy jouer ay treize matchs dañuy kii continuer seen affaire boobu. Mhm. mais tant mieux ñu dem jouer on va vivre avec la pandémie ñu dem vivre la pandémie nag deux jours bu ñu njëkkee jékki-jékki ñun deux trois quatre jours commencé nañu am ay Covid. bu boobaa nag ñu commencé nag ba ils seront les <laughs> ñun on n'est pas responsable waxoon nañ leen ñu arrêté. Mhm. ba léegi nag pendant ce temps ñu xool naka lañ mën def pour continuer suñu football. parce que mhm. rien ne nous dit commencé waatee passé saison bi léegi avec quoi on va a réfléchir. ñu commencé toog xool les sponsors xool naka la football bi demaat. parce que hmm. la formule bi ñuy def nii actuellement ñun on dit que formule football du Sénégal actuel mais baaxul. parce que on peut pas retenir nos joueurs. Hmm. joueur bu nekk mu ngi xalaat dem am na am na ay moyens yoo xam ne par exemple nga jég joueurs yoo xam ne bu ñu ñëwee suñu club ñu leen di fay ñun déjà on essaie de tout faire pour payer les joueurs à temps et puis régulièrement mais c'est pas facile. du tout donc bu ñu jékki-jékki nag loolu ñu yokk ko ba nga xam ne les joueurs bu ñu naan ah, Wakam kat ñuy pay cent 600000 francs de salaire des joueurs mais après ay Côte d'Ivoire ay nga xamul la ñëw ñu am. Mm-hmm. championnat bi am benn benn engouement bu baax. et c'est ça qu'on doit faire mais ñëw toog fii di forcer di jéem a jouer di jéem a toppandoo way kii joué na parce que euh, fële dëkk ba la ñu ngi joué dëkk bi te mm-hmm. bokkuñu dëkk yooyu yëpp benn bokku sa sa morom mm-hmm. on n'a pas les mêmes réalités mm-hmm. club yi on n'a pas les mêmes réalités boo nee way c'est structuré yéen a mel noonu seen affaire la mais c'est pas comme ça dañu waroon xool loo xam ne arrangé na club yëpp loo xam ne bu xasee ba nekk club de Ligue 1 wala nga nekk club de Ligue nga am lii ce léegi loo si teg rek mën a dem defar sa saison bu boobaa compétition bi day gën a neex et puis équipe bi dinañ am un plus haut niveau. parce que tim nekk niveau niveau club yi comme ni nga wax sànq. Mm-hmm. dem boo ñëwee dem Coupe d' Afrique ñu ne premier tour. deuxième tour ñu ñu toog. équipe locale bi mënut a qualifier Tchad. Ah, c' est pas te loolu li koy def mooy manque de compétition. manque de compétition ak ak difficulté ak. ñun ñun dem nañ ba en Coupe d' Afrique ba quart de finale. waaw les les gens les gens l' oublient. mais yàgg naa si yàgg na mais c' est mais c' est dafa mel ni tey nga ne El Hadj Diouf yàgg na mais El Hadj Diouf quand il a fait ses preuves. yàgg na mais mais c' est ça. Wakaam ñun loolu mooy suñu fierté ba léegi ñun dañ koy fàttaliku parce que si loolu mooy suñuy référence. gagné ngeen Coupe du Sénégal nañu ñaata yoon trois mm-hmm. fois. oui oui euh, Coupe du Sénégal plusieurs fois. Mm-hmm. Ah. on on fait partie des clubs les plus titrés quand même de de ce pays. le championnat bi ngeen mosagul jël. champion si en 2011. Mm-hmm. oui en 2011 si si 2011. on a été champion. jël nañ jël nañ ko 2011. on a été finaliste de la coupe de la ligue c' est important te coupe de la ligue boo gisee engouement bi yëpp. Wakaam ma tax. Wakaam ma tax dañuy wax ne coupe de la ligue kenn daaw ko seetaan. <laughs> mais président fi mu nekk tamit on va parler de la CAN 2021. Euh, secrétaire général lu kaf euh, ci fan yi ñu génn waxtaan na ci Abdel Mounaim Ba ni éventuellement xëy na ñu maanaam éliminatoire yi commencé woon nañ ko mu am ay match yoo xam ne joué nañ ko Covid bi ñëw changé ko complètement am na ñu doon wax ni compétition bi dañ ko war a reporter en mille vingt am ñu naan na ñu changé maanaam temps bi ñu koy def loolu yëpp. est-ce que xalaat nga ni euh, éliminatoire yi mën nañ ko jouer ba pare jouer coupe d'Afrique bi en deux mille vingt et un au Cameroun. mooy li may wax rek toujours c'est les suppositions xëy na xëy na xëy na nga wax daal bis xamante Covid bi i faut mu yee ñu jàngal ñu dara tant que tooguñu di di di forcer di jouer man pour man il y a des problèmes. Risque. donc ay risque rek la. yow nan ngay jógee si dëkk bi déjà euh, avion yi kenn xamul kañ la ñuy jóg. fi nekk nii euh, kenn ubbeegul les frontières. waaw commencé na bon Europe bi commencé commencé nañ mais maa ngi dégg ay cas impor cas importé rek euh, euh, venant de AIBD. te mm. tuuti mooy ñëw. bés boo ubbee frontière naan da ngay dem jouer ji est-ce que doo dem ba foofu sax fekk fa Covid bu gën a tar foofu nga naan kan mooy jël say joueurs naan da yóbbu si benn pays actuellement xalaatuloo ko donc actuellement peut-être au niveau de de au niveau africain mm-hmm. effectivement mën nañ xalaat kan mooy dem bés bu affaire bu ubbiwaatee. Mm-hmm. par exemple nekk nii ñoo on dit moment il faut tout arrêter. on dit que Tëngéej man franchement avec le le kii bi mu dem ñoom ñoo mérité dem fi mu nekk mm, nii. Mm, mm. bon donc eh, loolu. c' est donc daal coupe caf euh, coupe d' Afrique des nations bi war a am pour le moment. pour le moment nañ taxaw te te te fi mu nekk nii moom mooy continuer dañuy taxaw ba am si lu leer parce que kenn xamul. <laughs> te foofu lañ mujjee dañuy wax rek dañuy supposer supposer ba évidemment foog nga jël ay précautions avant et tout ça. mais ban nga jël ses précautions par exemple fii nga ne Tëngéej mooy dem ak tel ak kii euh, euh, Tëngéej ak xaw ma. jaraaf moo jël deuxième. waaw jaraaf moo jël deuxième. donc ñoom ñoom ñoom ñooy dem. Mm-hmm. et jeex na ko léegi après li si des ñu xaar ñu préparé wu nag xaar kañ la ñu war a mën dem et cetera ñoom tamit ñu ñu continuer euh, defaru bu baax. mais Coupe d'Afrique bi nag moom comme c'est la même chose. bon coupe d' Afrique bi c' pratiquement la même chose parce que léegi les coupe bi bon c' est des sélections ah. oui bien sûr c' est est qu' ils sont dans les dans la mesure du dans dem. yooyu yëpp c'est c'est c'est la fédération qui va gérer ça parce que en général ñoom ñooy gérer. parce que parce que xam nga Aziz problème moom mooy nit ñi dañuy xalaat Cameroun bu ñu janvier <laughs> mënuñ jéem beneen beneen mois. Mm-hmm. taw bi taw moom moo tax. donc foofu sa ça te pour man je rejoins li ngay wax lépp lu mu dépend situation pandémie même. ce que les. nekk bu la wax organisation. yi comme le président wax xamaguñu kañ lay. commencé non pandémie bi te fi mu nekk nii ñu ngi wax. Sénégal pandémie bi Malick te xamul dañuy avancé championnat bi. Hmm. nawet bi. nga toog fii nawetaan yi nawet yi. nawetaan yi moom nee moom moom moom seen seen

voilà te ñooñu ñooñ ëpp moyen rek lay doon ah, te ñooñu ligue des champions yi ak Europa. Ah, xam nga ñoom ñooñu te ñooñu ëpp. ñooñu ëpp moyen ay moyen ëpp ëpp ñu bëree bëree bëri foofu nag lañ waroon ñun xalaataat. Hmm. donc la Covid devait nous permettre d'élargir la réflexion. d'élargir la réflexion jël le temps nag di def ay réunions. Euh, avec les les les gens qu'il faut pour wax les problèmes du football pour def le symposium là. Hmm. c'est le maintenant c'est maintenant qu'il faut le faire. mais président la commission médicale de la fédération a donné commission euh, commission médical bi. li ñu wax ñoom ñoo ni woon euh, pour ñu au mois de septembre xaw ma novembre pour diggante bi ñu mën a gérer Covid bi. ñoom waxuñu dañ ne. dañ jël décision bi parce que le chef de l' état. Mhm. qui est mhm. Mhm. le plus. informé ay experts wax nañ ko ne xëy na xëy na au mois de septembre affaire bi kii loolu moo tax. ñoom ñu jël décision wu ne. à partir de ça bu fekkee à partir de ça. loolu mooy le le à partir jël décision. ñoom comme France rek la def ko. à partir de ça mais c' pas parce que dañ jékki-jékki rek parce que dañ basé aussi li président la. a décidé demee ba pandémie bi dem ba Euh, octobre noonu te affaire bi jeexul bon dañ jékki-jékki ne bon léegi nañ arrêté te te bon état bi sax moo koy wax comme ni mu waxee ne ata arrêté leen mhm. état bi sax moo ne bon xoolal moom mooy chaque li wax ci bon man sax duma spécial sant chaque fois ñu wax ne am na pic bi te if daal dafa tagg témbee mhm. wàccagul ba léegi te bu am na pic dafa war a wàcc mais day def nii def nii ab def nii en daan si ba li sa maîtrisation la la courbe dafay évoluer en dents de maanaam day def nii. su ko Malick loolu lu ko waral mooy affaire bi xam nga ni mu commencé mhm. mhm. ba pare di wàcc. ñun dafa commencé néew di yéeg. Mhm. parce que actuellement ñu actuellement on a dépassé les par benn par quatre léegi ñu ne waa fay baa ngi jeex man lu moom a jaaxal quoi. pandémie baa ngi wàññeeku. pandémie wàññeeku wul. muy te nit ñi tax leen lu dem football yi. parce que les gens parce que football tamit contact dañ cest à pour rejoindre li pour lañ koy def nit ñi fi. waaw dem defi leneen ba pare soog dem jouer ji. soog a dem jouer ji te su ne nii te football tamit comme dafa am contact nit lu ne mën a donc daal je pense que régler problème situation sanitaire ba pare wax ci football. sanitaire bi daal c'est le plus important. moo ñu moo ñu moo ñu tënk. dëgg ñu ngi dans dans des extrêmement difficiles. Mm-hmm. man je pense que war nañ tal leneen. Mm-hmm. lu dul naan waaye nañ reprendre nañ reprendre coûte que coûte noonu loolu moom loolu lañ leen loolu moom franchement c'est difficile quoi. Mm-hmm. léegi nag naka lañ mën dimbalee club yi pour ñu mën a traverser cette période difficile. et c'est juste ça loolu mooy wax ji quoi. mais mais est-ce que réflexion bi yéen vous la vous la posez au niveau de l'Union sportive de Ouakam cette bien sûr au niveau de, des instances dirigeantes. de de de l'USO waaw de l'USO est-ce que le problème se pose au niveau de l'USO par exemple réflexion bi comment sortir le football de la situation est-ce que ñu koy poser parce que tamit ku ci nekk war nga mën a à l'interne après des propositions vont même si ñëpp xam ne problème bi lan la parce que man je pense que du aider régler problème ponctuel mais régler ko problème globalement mooy gën di régler des des def ko des des solutions ponctuelles mais des solution globale pour le football moom moo gën par man je de ceux qui pensent de Star Times problème mun a ràññee ko bëree bëree bëri c'est c'est réglé est-ce que bon peut-être il a plus d'éléments que moom dañuy wax moo tax aide aide moo gën problème boobu moom c'est avec euh, euh, une télévision de la place mm-hmm. Mm-hmm. ci affaire TNT puisque ñu ne d'accord. avec Excaf. ak Excaf. Mhm. d'accord ñu. Euh, ñoom ñoo am ñoom ñoom exclusivité mais loolu rek la woon nañ ko déjà avec le président li ñu doon président de la République à l'époque bi mu bi ñu ko recevoir au niveau du Grand Théâtre mm-hmm. dafa ñëwoon il ñu toog jëm a def ah, dimbali ngeen fal ko rek dimbali <laughs> dimbali dimbali euh, fête ligue bi mm-hmm. ak start time mm-hmm. ak euh, start time ak escaf ñu toog jéem a trouver benn compromis parce que fi mu nekk nii y'a à boire et à manger pour tout monde dafa mel ni Sonatel tey mu ne way Tigo du am wala Kële du am Expresso du cetera du loolu loolu boo ubbee. ça ne change rien du tout. ku nekk sa sa wërsëg nga mën lekk. donc je pense que Escaf wala président mënoon ñu dimbali euh, start time mu vu que à deux doigts de signer ce contrat la qui yàlla aider le football. waroon waroon takk xar tànk tubéyam pour ne de oh les gens de Excaf oh ñii nee bon léegi créer le problème ñu toog au moins. jéem a rek waxtaan régler le problème et puis le sport développé wu nag de manière. vraiment pérenne. Mhm. moo moo gënoon quoi waaw. donc euh, yaakaar nga ni ba léegi cas boobu mën nañu ko régler. mën nañu ko régler fi mu nekk nii c' est c' est. c' est pas le contrat n' est pas définitivement rompu. non di Covid bi moo kii nii rek mais bu bés bu neexoon état bi tey bu leen neexee bon xa à mu am ya affaire yoo xam ne xaw ma ko. mais euh, état bi waroon na mënoon na décider toog waxtaan ak les les principaux antagonistes wax waxtaan ak ñoom wax leen ne bon fi mu nekk nii y a boire et manger pour tout le monde mais nañ nañ nañ déggoo. rajo hmm. am na waxtaan ci ci ci lamb ji tuuti euh, euh, Abdou Aziz. parce que tamit keroog samedi président ANP. Alioune Sarr Alioune Sarr président. Euh, invité invité groupe WhatsApp association nationale de la presse sportive waxtaan ci ay poñ yu bëree bëri mm-hmm. xam nga tamit euh, diggante ma arbitre bi wax na ci mm-hmm. wax na tamit ci diggante saison xam nga ñoom tamit mm-hmm. làmb ji dafa maa nekk dafa am crise oh, ren ji amul benn grand combat bu am amul benn mu amoon te a tikkee grand grand combat muy te du du affiche bu bu faar donc làmb bi moom moo gën a ama te boobu moom c'était c'était une spéculation dig Nicolas ñu ngi ko téye ñaan yàlla yàlla génn situation bu nekk kenn xam nga Aziz le sport global moom moo impacté wu par rapport c'est c'est le sport qui est touché par cette situation. Ouais. qui est touché mais totalement impacté par la Covid. sport moom moo gën a surtout lamb ji nga xam ne moom par exemple c'est les promoteurs personnes privées ñoo ñoo di ko def. Mm-hmm. gis nañ tey jii taxaw na ren benn grand combat c'était le 5 avril Papa Sow Siteu. amatul taxawul parce que Covid bee tax. amul beneen grande affiche amatul. yëpp dafa war a laaj waxtaanee ko baax a baax agité ko posé ko bañ. bañ ko ragal bañ ragal comment de trouver bu nekk un débat d'idées bu bu bu bu serein. Mm-hmm. ku ci nekk ci ci dara. Mm-hmm. je pense que ku ci nekk wax pour l'intérêt de tout le monde. Mm-hmm. waaw puisque euh, boo dégloo li nga xam ne président Alioune Sarr wax na ko loolu la que pour moom euh, bu mu yoree CNG bi ba léegi di tax mu yore ko mooy ñi nga xam ni ñoo koy joxe ku ci ñëw dafa koy jox. te loolu tamit li ko waral muy résultat yi nga xam ni def na ko ba ñooñu am ci moom confiance pour renouveler ko. mais mbooloo tamit boo ci neggee bu fekkee yàgg na il faut moom am coow. Ah. te làmb dafa yàgg am coow. Mm-hmm. mais à chaque fois moom bu amee coow dina maîtriser loolu ba saison bi ñëwaat mais bi yoon nag coow lii dafa gën a gën a bari. Mm-hmm. ay problème de surtout problème mu arbitre ndax arbitre yi dañu dem grève à deux jours de combat de lutte bi ñu demee commission bi nga xam ne ñooy toppatoo loolu jël décision suspendre leen. surtout président commission bi ñu raje ko à vie. réaction boobu à vie nag moom tamit mu mu mu indi coow li que mun nañ suspendre nit sax mais suspendre ko à vie. loolu ma jox ko benn <laughs> chance. pour mu mun a continuer ci li nga xam ne daf ko doon def ba bu fekkee da koy sanctionner sanction sax jaadu na mais la sanction a été lourde. te loolu ñëpp ko wax mais à part la sanction am na tamit yeneen groupe. yoo xam ni ci mbër yee ci euh, làmb ji yu coow war na xam nga état tamit du doxe noonu du caaganu nit ñi coow nañu rek état bi dafay jël décision. Mm. mais moom mu nga xam ne dañ ko dénk joxe na ay raison ni bu mu téye làmb ji ak léegi am na ay progrès yu mag te wax na dëgg ndax mbëri situation bi ñu nekk nekkuñ ko woon. bien que mbëri ñu ngi kaas ni dañ leen di dagg te dagg bi dafa bari mais boo seetee dagg bi tamit lu ko waral mooy li ñu leen di tere la ñuy def. Mm. donc c'est un mais moom ci boppam. li mu wax mu leer mooy tant que ñi nga xam ni ñooy joxe ñu ngi koy jox dafay continuer di liggéey puisque sénégalais la te it am ci moom confiance. Mm. kooku mooy lecture bi nga xam ni Malick wax na ko. Mm-hmm. léegi président yow naka nga jàngatee loolu. parce que yow ci football bi mais xale bi dëkk am war naa xam làmb. <laughs> Ah, tuuti tuuti rek mais bon c'est pas euh, mon secteur vraiment. mais ah, man en tout cas li ma xalaat par rapport à. falière yooyu. Mhm. man je pense que euh, le président Aliou Sarr kenn ku am na kilifa la quand même si. sport man loo jékki-jékki rek. balee ko mu dem toog. loolu moom loolu moom c'est pas une nekk sax. mais par contre moom waroon na commencer préparer sa relève. Mhm. nekk si biir et puis préparer sa relève tranquillement mu am benn. mais loolu sax ñu ko doon préparer mais xëy na gisagul profil bi nga xam ne moo mën a diriger. mais du moom moo koy gis moom rek de mais je veux ci région yombul surtout bu fekkee danga am coloration. yàgg na bëgg loolu moom. mais dem na ba ci biir li xam ne su ñoom la wóolu ñoom la nekkal di liggéey. man xam nga lu ma dañ ko dénk. te liñ ko dénk euh, ki nga xam ne moo yore sport bi moo ko ko dénk. Euh, du mën a tànn ni diw laa tànn. mun na def proposition xëy na. mais dénk boobu est-ce que gis na ko. dénk boobu c'est c'est nomination rek quoi du c'est pas une élection. nomination nomination la rek. nomination nag yooyu mooy yooyu mooy nomination fu mu am nag. waaw yam na ñoo xam ne duñ ci d'accord quoi. xam nga man man man man. c'est le comité national li may reprocher moo moo. c'est un comité. c'est un comité c'est une comité même même comité amoon na comité de normalisation. mais dana day am durée Mm-hmm. peut-être mën nga am renouvellement. Mm-hmm. mais du yàgg quoi en mm-hmm. général comité yooyu. dañ koy def juste pour une durée déterminée. Ah, et et ton rôle. c'est de revenir à la normale yow ah, a revenir à la léegi nag loolu moo tax ñu teg la fi. mais ñëw teg la fi en tant que comité normalisation. wala de de de de gestion. et après bon finalement nga toog fa quoi. day day yenn yi day.

quand on te confie quelque chose. mais il a ci ci ci xalaatam te loolu moo normal. pour man de il a raison. Ah, mais il a continue la mission bu ñu demee nag ba ñu ko dénk. moom il n'est pas en faute ko ci loxom. waaw ko du ci mën dara. il a parfaitement mais tant qu'il sent apte. de diriger. Mm-hmm. mais yàlla may ko wér Euh, euh, je crois man je pense que c'est de sa faute c'est ñi ko ñi ko. ñi ko fal tant que ñu ngi koy. ñu ngi koy euh, am ci confiance am ah, pourquoi mm-hmm. xam nga tamit kii def Aziz dafa lu am solo léegi. cest dire lii dafa doon teg tam occasion la pour tout le sport sénégal que les gens réfléchissent. Mm-hmm. nit ñi xalaat ci xalaat ci. Mm-hmm. parce que le sport là.

li la metti la nga koy wax sur place <laughs> te ça ça ne règle pas toujours les problèmes mm-hmm. donc c'est un milieu très compliqué très difficile pour gérer gérer ko je te dis c'est pas facile mm-hmm. c'est un milieu compliqué très très compliqué te moom li doon mission principale mooy la réussite des acteurs mm-hmm. c'est-à-dire ñi nga xam ne dañu nekk ci biir làmb ji nekk les acteurs principaux muy mbër yi pour ñu nekk dans de bonnes situation sociales te loolu tamit xam nga c'est important c'est extrêmement important parce que bu yàggee ba mbër daawul am yenn yi. effectivement daawul am yenn avantage yi moom il s'est arrangé de sorte que bu fekkee dañuy organiser combat reliquat bi nga xam ne dañ koy fay mbëri dañ daan dem. Hmm. bu ñu partee ni perte nañ mais léegi avant ngay organiser dañ ko fay teg donc loolu sécuriser nañ ko. Hmm. mais comme je di problème bi nga xam ni moo yëngal maanaam mbir mi mooy sanction lourde. bi nga xam ni dañ ko def arbitre mm-hmm. loolu mooy problème bi je pense parce que mën nañu ubbi antenne bi léegi soose 88 euh, la 628 98 92 ngeen ootee euh, suñu gan tey moom mooy Abdou Aziz Gueye président union sportive du Wakam waxtaan moom ci wàllu reprise bi. ak euh, championnat bi ak tamit gis nañ tamit ne ren ji Wakam mais Aziz man. est-ce que c'était facile de convaincre Souleymane Diallo nekk champion du jël coupe du Sénégal ak Teungueth ak Teungueth FC ngeen misé ci moom est ah am nañ kenn ci ligne bi sëñ bi après moom mu jóg tontu question bi allo sëñ bi asalaamaaleykum. asalaamaaleykum. maaleykum salaam ah, El Hadj waaw. El Hadj waaw. Ibrahima Ndiaye Pikine Gueye Ray moo leen di nuyu. Ibrahima Ndiaye wax saxara loo Ibrahima. ñu ngi def sant yàlla julli ci yéen bi sallallahu alayhi wa sallam leen baal ñu baal eh, eh, lool seen émission bi commencé ndax ñu ci baat déglu ci sax moo leen di gënal sax du ko di woote. <laughs> waaye li ma lay mën a dénk daal ci wàllu CNG bi rek laay wax man tey. waaw. ko mbooloo daal mbooloo koy tuur. Mhm. te génn góor nee na foo dégg góor gaa góor gaa gaañe boo ko la moo tooñ gaañe <laughs> waaw góor gaa gaañe hmm. boo ko seetloo góor gaa tooñ gaañe xam nga lu mën di xew hmm. man su ma doon mooma hmm. damay génn grande porte fi mu jaar ak teraanga yi ko yàlla may ak li ñu wax ne moom la ñu tikkin li muy waxal xam ci wàllu médecine mu ñëw ba egsi fi crise bi commencé balaa jëm kaw moo tax sa war a nobal keneen xam ko keneen ba mu dénkee dencee bi fàtte ko. Mhm. ñëw di soxnaam soxna ñu ko yaa ko dencee bi sax nga mën a ko dem jot na mën a mën a ko maa ngi commencé fàtte mhm. mhm. ay lobby am ñu leen wër di moo baax moo fi gën mais xanaa kon éternel amul te naw nag éternel amul na teel a baal ci moom kenn xale yi te moom kat suñu toll si mbir am na ko baax Mm-hmm. yaa ngi dégg. bu baax gannaaw moom docteur la moom te corona ne li ci suñ kaw te jaaxal na docteur yi moom koy am na grand combat wax dëgg yàlla jërëjëf <laughs> Ibra jërëjëf Ibra Ndiaye 88 628 98 98 ngeen di oote euh, suñu invité tey moom mooy président Abdou Aziz Guèye président bu sportif du Wakam euh, président sur le cas Souleymane Diallo est-ce que c'était facile de convaincre entraîneur du Sénégal ñëw pour équipe D2 Euh, bon c'était pas facile ah c'était pas facile parce que ñi ko bëggoon bari na mais ñun vraiment dañu du du moom dañ dafa nekkoon suñu biir liste quoi on avait des entraîneurs du ñu ciblé woon et euh, yàlla def bon moom finalement moom lañ choisir ko mhm. et puis euh, pas facile. vous avez des prétendants. kon moom. mooy moom am na yeneen entraîneur yoo xam ni. oui ñun de kon ñu ngi ñu ngi ñu ngi leen ciblé woon parce que bi ñuy defee suñu réunion pour xam ban parce que dañu ne woon il de très haut niveau. donc ñu ciblé yenn entraîneurs yi. ay nag commencé waxtaan ak ñoom. léegi Souleymane Diallo non non je veux dire équipe ko gagné man dama koy tooñal ne ko man Souleymane nga mën a gagné coupe du Sénégal di dem di dem. mais challenge di dem di dem di dem ak boo nga baam as am ñoo xam bëri ñaata la wakaam gars yi ngeen xaw a ragal ak par rapport seen public mm-hmm. parce que c' pas facile. c'est pas facile surtout boo boo ko xam ne mel noonu mais moom il a accepté ça dama koy tout le temps laa ko ah moom mm-hmm, mm-hmm. la rek. am a fait un travail ko. wax ne waxaam pratiquement résultat mu pour pour xale yi foofu est-ce que am nañ chance jouer par rapport defee bu njëkk. Euh, jeunes yi fa am nañ chance jouer ci équipe bi. ah bien sûr. Wakam ay footballeur rek a fa nekk. Mm-hmm. mais le problème actuellement euh, dañ tollu diggante boo xam ne euh, di dañuy xool les plus performants. da mm-hmm. bu ñu bu ñu bu ñuy def euh, hivernal dañuy ubbi. Mm-hmm. mais Souleymane Diallo fa mu ñëw xool. di xool léegi on on n'est pas fermé Sénégal lañ nekk. ka nga jógee Ziguinchor wala Tamba wala l'essentiel. mooy nga am un bon un élément dans le bon secteur. moom loolu la def. Wakaam bu ñu gisee benn boy bu bu baax si nawetaan wala n'importe où mais day ñëw mais bu ñëwee moom daf koy xool mm-hmm. mais après bu paree nag il va il fait une sélection mm-hmm. par rapport à tout ça ah ñëpp quoi mais duñ ne parce que Wakaam nga dëkk rek da war a jouer mais est-ce que da nga immiscé wu ci ci sélection yi mbala vous laissez la latitude moom ngeen bàyyi latitude moom fii moom on la on lui a laissé la latitude quoi mm-hmm. moom c' est à lui de de de de y' a a un pool moom am na ay staffam aussi. ñu koy xoolal ñuy def lii. Mhm. parce que demain c' est lui qui sera responsable. Mhm. et puis Wakam c' est un challenge. Mhm. doo jékki-jékki rek lu yomb ba gagné nga mais dem na ba gagné coupe du coupe du Sénégal. bon mais léegi. il a il a croisé il a il a. il faut revenir dans le et puis fii yaa ngi jël benn parce que moom il la c' est pas la première fois bu jëlee équipe de Ligue 1. Mhm. Ligue 2 mhm. donc ñun loolu la ñu soxla woon. donc c' est un. ku xam Ligue 2 bi c' est un challenge. xam na Ligue 2 xam na lan lan lan moo ñu war a yóbbu Ligue 1 et puis accompagner ñu pendant un certain temps. loolu loolu bu ko réussir moom c' est extraordinaire. maa ngi leen di fàttali auditeurs yi 88 628. 98 98. Mhm. ci émission rétro sport bi pour ngeen joxe seen xalaat. suñu gan di fàttali moom mooy Abdou Aziz Guèye di président bu union sportive bu Wakaam ñëwaat nañu euh, wax nañ ko fi toll nii sax am na daje war a amaat mais wax na ne moom lépp mu ngi dépendre situation sanitaire bi nga xam ne fi toll nii moom moo am ci ci réew mi ak Covid bi nga xam ne moom moo euh, euh, bett ñëpp gis nañ tamit ne par dans dans certains dans certaines équipes fii ancienne gloire yi amul maanaam duñ du ils veulent toujours être au devant de la scène gis nañ jaraaf ci surpan jaraaf bi ay souvent ay ñoom booy bàyyi dañuy dem ak ñëw ay ñoom Mansour Ayanda ay ñoom Léopold est ce que c' est le cas à de Wakam est ce que les anciennes gloires les anciens apportent quelque chose à cette équipe de Wakam. bon pas, pas en termes de moyens mais de mais d' assistance. de présence ah oui, de présence, mhm. oui, franchement de présence ñu ñu euh, ñu bëri ñu ngi ñu ngi ñu ngi apporter seen contribution. Mhm. ci xalaat tout tout les anciens. ñu yaa. Euh, euh, seen ancien gardien bi nekkoon équipe nationale. kii euh, Pape Latir. Pape Latir mu ngi fi il est il est dans le comité directeur. Ah, dans le comité directeur il est dans le comité directeur il ah, est. moom tam day apporter chaque fois xalaatam. Mm, euh, di lu lu lu nekk. donc les anciens jouent leur partition. ñu ils jouent leur partition wax dëgg yàlla. xam nga particularité Wakaam moom <laughs> moom mooy loolu parce que léegi la tam ñu ci bëree bëri bëri. fu lañ dëkk ay ba pare ay mbokk lañ. ay mbokk lañ <laughs> c'est ça c'est ça c'est pas. waaw mais est-ce que loolu du force tamit. ah oui c'est une force bon ça peut être une faiblesse aussi. parce que mm. boo bëggee forcément ne waa Wakaam rek ñoo war a jouer. bon <laughs> foofu peut être nga am nga am problème. parce que tamit euh, mais mais est-ce que c'est facile. bu ah njëkk ah. ba c'était peut-être voilà parce que bu njëkk ba pour nga am on avait de de de très bons ah, joueurs on a on a même un football d'exportation yu joueurs yu bari Ouakam c'était un vivier. Mm. ay police ASFA. Euh, ñoom même ja ah. mais ñoom ñëpp Ouakam lañu daan jëlee ay joueurs ah. Mm-hmm. ah. Mm-hmm. Sotrac amoon na amoon na transport avocat. transport avocat mhm. donc yooyu yooyu yëpp gars yi. Uh-huh. fa lañ nekkoon ah. mais léegi amatul loolu amatul loolu vivier boobu amatul ko fa léegi moo tax. bon vivier baa nga fa mais quand bon dafa laaj euh, une stabilité. am na am na un encadrement bu ñu nekk di travailler dessus euh, avec l' académie et tout ça. Mm-hmm. Euh, dafa laaj am na boy yu bëri yoo xam ne ils jouent dans les dans les autres académies. Mm-hmm. parce que Wakam bon dafa mm-hmm. xajatuñu fa quoi. bu bëri école de football bu a également bu bëri 16 ou 17 écoles de football. est ce que ñun tam ils apportent quelque chose ak ils apportent quelque chose par rapport à à l' indi dara gis jote ne la ah kii kat na xool yooyu ku ci nekk yaa ngi mën a maanaam. te li nga war a def nga def ko pour. équipe bi de on s' rendu compte que. Euh, kenn mën na nekk un très bon joueur de nawetaan nii mais boo demee dans les dans dans dans le professionnalisme. mais da nga naan day c'est pas possible. surtout pendant la préparation hivernale dañuy yëg yéen ñooy boy bi si daan nga pas facile quoi c'est pas facile l'intégration mais ñooñu tamit dañ leen di bàyyi xel <laughs> c'est pas parce que dañuy ñu rejeté leen dañ leen bàyyi xel mm-hmm. peut-être que dans un an deux ans dinañ nekk ñoo xam ne euh, euh, très bon joueur waaw mm-hmm. suñu invité tey Alioune Badara Socé moom mooy Abdou Aziz Gueye président Wakam 88 628 98 98 nga oote seen émission Rétro Aziz Gueye moom mooy suñu invité tey ji ci wàllu Retro Sport waxtaan nañu moom ci ay poñ yu bëree bëri ci wàllu reprise championnat bi euh, am ci saison mais on vous reproche également des supporters très bouillants est-ce que loolu yëpp c'est réglé maintenant c'est <laughs> yooyu moom c'est réglé xam nga Sénégal si boppam moom moo mel noonu. Mm-hmm. Sénégal yooyu moom moo xër quoi si si supporter. Mm-hmm, mm-hmm. boo demee dans dans c'est pas propre à Wakaam ñun. ñaari njàmb oh, oh, ñoom voilà. yaa ngi commencé yaa man koy lim man koy lim. man dama koy lim <laughs> même Sénégal bi ñu Côte d'Ivoire di dóor fii. <laughs> Ah, mu ngi noonu Sénégal <laughs> mu ngi noonu. bi ñu dóor ñu ñu ñu bi ñu ñu suspendre. Euh, Léopold Sédar Senghor. Mm-hmm. parce que euh, c' le supporter euh, sénégalais qui comme ça mais léegi du ñu singali Wakam parce que y' a un accident. Mm-hmm. ñu am problème ne way Wakam ils sont. Mm-hmm. mais mais quand même on est on était mais fi nekk nii. on on a on est en train de corriger tout ça. voilà ci lan ngeen appuyé pour corriger loolu comment. non parce que on a vu tous ces événements là léegi on a un vice-président chargé du développement et de la formation. boo ah. xam ne moom il est en train de travailler euh, dans tout ça réfléchir naka la ñu mën encadrer les supporters. ak di leen daje ak ñoom di daje ak ñoom di y' a y' a une formation. Mhm. et cetera yooyu yëpp euh, et puis une autre organisation. Mhm. yooyu yëpp ñu ngi siy travailler bu baax a baax. et on a de très bons résultats bu ñuy dem ils sont extrêmement bien organisés. fi mu nekk nii affaire yooyu c'est derrière nous. Mhm. kenn du répondre à la provocation yooyu. c'est fini mais euh, fini on a ça se euh, on a tout aplani. vraiment amuñu amuñu problème de côté boobu. loolu mooy il faut il faut c'est une page noire du mhm. football du Sénégal parce que bon euh, on va pas revenir là-dessus. Mhm, donc imam Mbour bi loolu la soxla sax ñu ñëw di ko. comme ah, ah, comme ah, dafay dafay metti tout temps. soxlawul quoi nañ jéem a fàtte yàlla mooy def ñuy fàtte santé. donc il faut que ñu avancer. Mhm. et puis que rien ne ne soit plus comme avant. Mhm. donc euh, fu nekk nii franchement fàtte nañu. c'est c'est derrière nous. nga yaa wax ne supporter nañu si la sensibilisation ci la ngeen ko accès pour yenn com pour changement de comportement sur quoi vous se sont organisés ñoom mhm. am des des de stagiaires. Mm-hmm. ak bu ñu demee ñoom ñuy encadré booy yi. Mm-hmm. et xam ku ñëw ak ku ñëw xam nañ ku ñëw xam nañ ñan ñoo dugg si bus bi. Ah. xam nañ ko yooyu yëpp ils sont tellement bien organisés actuellement mm-hmm. vraiment. Euh, maa ngi profiter de l'émission pour les féliciter. parce que ils ont ils sont en train d'abattre un énorme travail. te euh, vraiment Wakam noonu loolu loolu noonu foofu lañ jëm. mais ça sous la supervision parce que ñoom ils sont ils font partie du comité directeur. aussi bien le le le le président du du comité des supporters. qui est chapeauté par le, le vice-président chargé de, du, développement. Euh, du, et de la formation. Mm-hmm. mais ñooñu ñëpp euh, ñu ngi ci ci bureau bi ñu ngi ci. Euh, staff euh, ci staff bi. Mm-hmm. donc ñu ñu rendre compte tout le temps et puis ñu ngi koy gis aussi. bu ñu mm-hmm. demee stade gis nañ gis nañu. et puis les dañuy am nouvelle ligne de mayo boo gisee ni ñu jaayee maillot yi. les gens sont là vraiment ils sont fiers de l'équipe. li li li si ko li tax playoff bi parce seen seen force moo seen moo seen supporter yi. oui c'est une administration <laughs> culturelle. waaw on bon section culturelle bon pa bu bu feeñ ni mais c' est sûr que Wakam c' est du dëkku cosaan la. dëkku mm-hmm. mm-hmm. cosaan la am nañu mm-hmm. ay évidemment ay famille Dorabine. yooyu yëpp am na ko am nañu aussi des des des régates. nga xam ne bon c' est c' est notre tradition. Wakam mais est ce que ñu ngi fay euh, ñu ngi def compétition régate foofu. régate oui oui régate bu am euh, chaque fois ay gorée yooyu euh, ils sont ils sont là ah. ok donc y' a y' a une évolution dans le sens positif vraiment du du du du des supporters de ah Wakam. ah oui oui oui dans le sens vraiment très positif. fi mu nekk nii Wakam beneen beneen affaire la di actuellement on est en train de nous organiser bés bu ñu amoon stade nag nga xam ne foofu gars yi nag. <coughs> gars yi nag ñoo gën a fii lañ gën a organiser woon. da ah, am ah, public. waaye da nga am public un public organisé. Mm-hmm. waaw. et ça c'est important mais peut-être catégorie yéen a ngi ciy liggéey. ñu ngi ciy liggéey bu baax moom laay wax ne am nañ un responsable chargé de l' académie. Euh, moom moom. kan la Diagne Gueye. Diagne Gueye waaw Mamadou Diagne Gueye moom. je connais je connais il est en train il a fait un très bon programme il est en train de développer ça vraiment euh, kontaan nañ ci trop. est-ce que mën nga mën nañu am d'ici quelque temps que petite catégorie catégorie boobu commencé jouer ci équipe première Wakam bi. ah bien sûr ñu am ñu bari ñoo xam dañ leen déclassé woon suñu équipe bi bi passé na lay am nay. même le le le boy Ansou la là. bi ngeen di il a fait toutes les classes. ba ba il a joué très jeune ba ba on l'a déclassé ak ah, ah, ñeneen ah. Mm-hmm. ñoo xam dañ leen déclassé. Mm-hmm. ñoo xam ne foofu lañ joué les cadets euh, junior euh, même notre actuel capitaine fallait defee toutes ses classes. Mm-hmm. defe naa defe sax bu ñu nekk champion en c'est ça parce que xale yi nga xam ne nekkoon ci catégorie yu ndaw yi ñoo ils ont joué ensemble. pendant plusieurs années y' avait des Wakaw moi présent en moom oh, xam nga léegi la football dafa dem ba nekk. benn Lim Ndiaye il titille des fois il n'est pas stable mu ngi noonu quoi. Mm-hmm. Baye Omar Niass tamit mu ngi noonu il ne il ne revient plus. revient plus nag ñoom. en de l'équipe nationale. waaw xam nga euh, joueur bu nekk da ngay am des des et des bas. Uh-huh. et c'est des problèmes de lobby aussi yenn yi. buñ la la buñ la bu la bu la gars yi dimbalee. Uh-huh. mais da ngay sa bopp euh, uh-huh. exploser quoi. mais donc ils font tout pour ñu pour mais c'est pas facile yenn yi am na ñeneen c'est une compétition ñoom tamit ah. ku nekk sa place boo fa nekkee. mais est-ce que ay Loum c'est dem pour tout le monde mooy expliquer problème les problèmes de xale yi ci choix ci guide leen ci tànn def équipe boo xam doo joué kii nga dem fa doo joué du nekk sa. faiblesse parce que tam lu bi mu nekk fii ak équipe équipe U20 yi c'était vraiment le titulaire avec Joseph Koto. ah oui fës ci équipe bi wane lu am solo mais jékki-jékki disparaître comme ça est que tamit ngeen ngeen am. seen choix yi mbala une fois yooyu amee c'est les parents qui sont en yéen yéen vous êtes participé à l'encadrement des jeunes. par on le fait mais yenn bu ñu xasee ba dem. après dañuy dañuy presque presque jóge suñu loxo quoi on on a plus on a plus le contrôle. on a le contrôle parce que dem nañ bon. Euh, évidemment euh, dinañ am toujours les relations avec ñi fi nekkoon ñenn ñi mais euh, avec le club nii euh, ñun on a perdu le contrôle parce que. jaay ils ont des les agents agents yi surtout ñoom ñooy xër te dañuy siis club bi en général. <laughs> ah bon agents moom c' est mooy kaw génération foot ak jàmbaar. waaw moom ku fay dugg da ngay. signé contrat signé contrat boo xam ah da nga koy que le club qui te un agent. te boo ko rompre da nga fay xaalis. ah parce dundee mais ñoom ils ont ils ont solution par rapport à ça fii nag on n'a pas la solution parce que joueur bu nekk am nga sa agent da ngay ah. jékki rek ñu ne agent bi wax na lii agent bi wax na lalee <laughs> bon c'est ça et puis tam Aziz tam bon ça je te en tant que président xam ne dañ leen fay miroir ci bëri nga dem nekk dans la galère dafay bëri lool lool man mos naa dem benn jour Maroc kii euh, Algérie benn match Sénégal mais j'ai vu ñoo xam dañu déggoon yóbbu pour jaar Europe ñu bloqué fa sama daf ma mat ko trop. agent agent verrier la est-ce que dangeen sensibiliser xale xam nga bay yi ñuy yàkkamti génn. waaw parce que parce que parce que précarité bi la. voilà da ngay toog sa kër nekk mm, normalement un soutien de famille. nga jékki-jékki ñu proposé la benn cinq cent mille wala six cent mille francs sa waa kër bon tu es obligé pratiquement te club bi mënu la téye mm-hmm. parce que on voit juste l'avantage du joueur on voit pas que l'avantage du club donc yow bu fekkee da nga da nga am da nga da nga bëgg a dem bon mënuñu la téye parce que dañ naan yow yow ñoo ñoo la xañ sa génn bon sa sa waa sa dañuy mere. moo moo ko xañ teraangaam. waaw parce que gis nañ tamit est yooyu tamit a dem laaj leen yooyu noonu. ah bu ñuy wax suñu xalaat dañ dañ ko wax moom dañ ko ne ah mooy nii ah nii ah nii fii parce que si précarité mooy expliquer peut yenn. yenn choix yi même du fekkee de raison sax mais man je pense que ça s'explique même ça ça ne se parce que nga toog mënuñ di fa am fi ay cinquante ay cent mille francs ñu propose six cent mille francs fële Maroc. mën mën mën mën ngaa dem nga tànt ci à l'aventure. bon du ko justifier mais mun mun naa ko comprendre. c'est des choses man loolu daf ma marqué trop en Algérie. Hmm. ma ñëw je vois des Sénégalais bloqués dañu. même en Turquie en Turquie jëm jouer de de de nii euh, yenn yi club yi du leen fay wala des trucs comme ça dañuy continuer toog foofu te duñ mën ñibbisee. am am kersa parce que parce que ndoxul doo mën a ñibbisee. <laughs> nga dellu si sa club parce que c' pas c' pas tout temps facile. gis tamit ne Wakam pratiquement c' la base de de l' équipe de beach soccer ak Chita ñu ko nuyu au passage tamit loolu tam c' une fierté pour Wakam. waaw c' une fierté Chita moom c' est une grande fierté pour Wakam <laughs> euh, même aussi Badara si futsal waaw il, est en de faire un très bon travail. Mhm. donc euh, y compris le président Omar Gueye actuellement c'est lui c'est lui remplacé Wakam. voilà moom laa remplacé mais moom moo yor actuellement tout ce qui est euh, spécifique. Mhm. donc au niveau de la fédération. Mhm. donc euh, il est en aussi d'avoir un très bon travail là donc yooyu yëpp bon pour dire que Wakam on participe.